asalaamaaleykum mbokk yi ñu sant yàlla moom mi ñu may ñu teewaat si jotaay bi ca kanam ca kanam ni ñu koy defee ajuma bu ne euh, fii ci 2STV ànd si ak yenn sunu ay téléspectateurs ak sunu ay techniciens ak sunu ay naataango ak sunuy sunuy gan euh, di ziar di delloo njukkal kenn ku nekk di ko tàmbale tey sunu naataango yi awa jàkk awa di la nuyu la ziar sargal. Tunkara di la nuyu di la ziar di la sargal di nuyu téléspectateurs yi di la delloo lenge yi <laughs> ci bés bi tey et euh, merci beaucoup euh, di gërëm téléspectateurs yi di leen balwaax di leen baalu ci ci àjjuma ji euh, di ñaan yàlla ñu commencé émission bi si bisimilahi rahmaani rahim terminé ko ci alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah rabil alamin boobu it mënees na ko tàmmalee ndax keroog def nga fi lu am solo yaak euh, soxna Fatou soxna Fatou yow it la nuyu la ziar la sargal. waaw merci professeur et heureuse de te retrouver <laughs> encore sur le donc voilà li ñu wax rek toujours un plaisir d'être là face aux téléspectateurs nos amis ñu ñuy suivre à tout moment di leen remercier pour ça di remercier nos nos invités di kontaan encore di. ñaan yàlla commencé ko ak jàmm terminé ko ak jàmm également. Euh, alhamdulilah tey euh, sunu gan yi euh, ki ñu si njëkk a àndal colonel lieutenant colonel Cheikh Tine moom colonel Cheikh Tine moom mooy commandé maanaam li ñuy woowee groupement la si ñoom lañ koy wax incendie ak secours numéro 2 bi nga xam ni nag mi ngi ëmb diggante Thiès ba Njaareem moom. Euh, si waa sapeur pompier euh, mon colonel di la nuyu di la ziar di la sargal. Euh, Tunkara maa lay fay bu baax di nuyu ñi ma fi toogal ñëpp di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi di am mbégte lool di ñëw fii ci invitation bi ngir waxtaanee lu jëm ci sapeur pompier. alfa Amadou caam alfa Amadou Thiam moom mooy secrétaire général adjoint bu Touba ca kanam. moom it euh, sunu gan la euh, sëñ Thiam la nuy la dalal la ziar. jërëjëf Tunkara asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu euh, mbokk téléspectateurs yi ci kanam. di nuyu aussi waa Touba ci kanam yëpp ñi nga xam ne ñu ngi taxaw di ñu dégg di leen sant di leen gërëm. macha allah sunu ñawkat moom mooy Bara First Class Bara fi ci Castor ak ci Liberté moom it di ko di ko sargal. colonel Cheikh Tine la ñuy euh, tàmbalee tey euh, mon colonel sapeur pompier yi euh, man keroog dama bind si ñooma ah. bon xam naa tey du ma bëri wax ñoom bu ñu toogee parce que day mel ni dama dama jeng parce que moom man dama ni ñoom ñooy sunu ay njàmbaar ndax sapeur pompier waaru ñuy bay si wàllum xettali ñëpp gis nañ ko muy wàllum safara. Euh, lakk su amee wala wàllum euh, géej gi bu ay nit di lap wala wàllum accident euh, walla wàllum njaaxum bu mënti ne ñoom dañuy ñëw taxaw te sapeur pompier kenn mësu leen dégg ci ay ay grève ay ñaxtu ay guerre ay naka sudul noonu yooyu nga xam ne ñun ñëpp dañ koy jooy tey Euh, ñoom sapeur pompier donte seeni jumtukaay toogoon nañ fi jamono yoo xam ne dañ naan caserne yi sax pour ñu am boo leen wooyee duñ ñëw ndax amuñu oto boo xam ne mën na leen yóbbu ak yooyu naa yooyu dina ko leeral ba euh, jamono jii ñu gis président de la république def euh, jéego bu am solo jëme si ñoom ñu waajal leen indil leen ay jumtukaay yoo xam ne ñu ñëpp gis nañ ko. Euh, nu mu amee solo euh, mon ko kon man tey du ma du ma bëri wax parce que dañ naan dama leen faral <laughs> te ñun suñu métier dañuy moytu di faral euh, mais mon ñun daal dañuy sargal waa sapeur pompier tàmbale ko général ba si ñi ñi tàmmali tey bésu tey ndax pompier ñun amuñu seen fay suñu borom lañ leen di lañ leen bàyyil mon colonel man am lu may wax loolu du problème ni nga ko waxee rek noonu la amee defe naa ne ñun ñoo leen war a jaajëfal ndax euh, comme ni nga ko waxee rek ñun amuñu occasion souvent di di am euh, waxtaan ak euh, mbokki téléspectateurs yi kon su ngeen ñu invité xalaat ñu naw suñu liggéey ba invité ñu fii loolu je crois que ñun ñoo leen di delloo njëkkal te su ma fàttalikoo il y a deux ans ci ginnaaw amoon na nañu ak waa 2 benn couverture bu mucc ayib bu ñu defoon Touba ak ñoom dàbbali ko ak Tiwaawan vraiment mu jur lu bari ndax askan bi permettre na leen moment yooyu ñu gën a xam sapeur-pompier waaye tam li gën a am solo ñu gën a xam nu koy utiliser ça parce que ma demee tout temps sapeur-pompier c'est un outil de la population. population moo war appropier approprié wu pompier parce que sapeur-pompier ci protection civile la bokk. ci civile la bokk. Mhm. sapeur-pompier ministère de l'intérieur moo leen ëmb. waaw ay suñu statut ay militaire lañu yu ñu mettre à la disposition du ministère de l'intérieur pour emploi. fi mu toll ni sapeur-pompier yi ñaata caserne lañu am ci réew mi. actuellement booy xool ñu ngi ci euh, ñeen fukki caserne ak juróom-benn. moom la ñu am. Mhm. Euh, mais booy xool comme ni nga ko waxee sànq. balaa may putoxlu ci ci jumtuwaay yi ma wax d'abord montée en puissance bi ndax depuis 2012 le président de la république ñu koy jëfal ci turu sapeur pompier yëpp moo d'abord jëlee sapeur pompier groupement indi ko brigade ñu koy indi brigade dafa jur lu bari dafa jur ñu war a yokk ci ay nit yokk ci ay caserne yokk ci ay jumtuwaay nit ñi Euh, boobu ba léegi may na nu ñu am ay recrutements spéciaux yoo xam ne ni dem nañ ci 3000 personnes. yu ñetti junni nit yu bees. yu bees yoo xam ne dolli nañ ko mu ànd ak. monté sapeur pompier yëpp ñaata lañ. sapeur pompier yi actuellement ñu ngi toll presque ci cinq mille et quelque. juróomi junni waaw 5000 et quelque. ñu tas leen ci biir réew mi yëpp ñu tas leen ci biir ñeent fukki euh, caserne ak juróom-benn juróom-benn. est-ce que bon région yëpp am nañ mais est-ce que am nañ. ci loolu la ñu nekk. ndax boo gisee moyens yi mooy ci beneen wàll wi président bi instruire na pour ñu tabax fanweeri caserne yu bees. Hmm? mooy li ma la wax mooy accompagner toujours monter en puissance bi. léegi euh, juróomi junni yooyu tey si ñaata département lañ ne ci réew mi. actuellement boo koy xayma euh, mën nañ ñi ay juróomi département moo nu dese mais. si euh, ñeent fukk ak juróomi réew mi yëpp. waaw mais nit ki aussi il faut que nit ñi xam benn affaire. Euh, ubbi caserne pour pompier sa obéit à des à une identification passe d'abord par identification des risques cest à doo ñëw rek xool foo xam ne da nga ubbi caserne pour ubbi caserne soo ubbee caserne boo xam ne amul risque bu ñuy défendre taxul nuy wax Mhm. donc boo gisee. ñu besoin yi lañu lañu war a demee daal la ñu demee la ñu war a demee. léegi euh, moo colonel gis nañ ne euh, président tey euh, yéen yaa ngeen koy naw te ñun ñëpp naw nañ ko si jumtukaay yooyu mu leen jox mun nga ñu si jox ay leeral. waaw jumtukaay yi comme ni ma la ko waxee jo junj nga ko sànq ne am na moment boo xam ne nii mun ñu woon ngeen ndax amuñu caserne. non amoon nañu ay oto c'est ko oto yi ñoo bari woon par rapport à l'ampleur de la couverture des risques loolu moo doon problème mais amoon nañu ay oto mais lii dafa vraiment euh, soulagé ñu daf ñu yóbbuwaat bu ma nee ñu ngi woon ci cinq yóbbu nañu actuellement ci vingt cinquante wala soixante. Hmm. waaw parce que vraiment moyens yi il faut ñu ñëwaat ci parce que nit ñi xam parce que euh, c'est un plan spécial d'équipement à hauteur de vingt six milliards. Hmm. yoo xam ne nii pour ay équipement la ak matériel. matériel bi boo koy xool ambulance yi rek toll nañ ci 77 ambulances fourgon yi moo xam fourgon yoo xam ne ay porteurs d'eau lañ de 10 000 litres wala 5 000 litres egg nañ ci plus de 50 nga ñëw am nañu échelle boo xam ne fii au temps boo demee étage ay quatrième cinquième étage xam nga lakk bu amee généralement mm-hmm. les communications existantes maanaam cage d'escalier yi sont envahies par la fumée. Mm-hmm. moo tax moo tax ngay gis nit ñi léeg-léeg ñuy sëpp ci fenêtre yi. di wut oxygène. Mhm. ñooñu mënoo leen sauver lu dul par l'extérieur. donc échelle bii ñu am tey ça fait plus de quarante cinq mètres. mën na déployer et c'est pivotant oui. Hmm. mën na sauver nit ñooñu. Mhm. Euh, am na ay vedette incendie yu ñëw maanaam bateau wala gaal bu lakkee ci biir géej vedette yooyu mën nañ dem ba foofu fay ko am nañu plus de vingt zodiacs yu ñëw. yoo xam ni ça va nous permettre vraiment de couvrir tous les plans d'eau y compris les îles hmm. loolu daal nekk na loo xam ni d'ailleurs euh, ñoo ngi jëm ci màggal gi hmm. maa ngi rassuré sama mbokk waa Touba ci kanam yi moyens yooyu yëpp danañ ko génne vraiment yóbbu ko ci màggal gi léegi euh, mon colonel euh, yooyu yëpp président dafa ni nag tàmmali la rek hmm. ndax affaire bi am na yeneen yu war a ñëw fu mu toll nii plan wu vingt six milliards boobu Euh, exécution bi ban pour pourcentage la. actuellement on est presque à 75 pour cent d' exécution. kon kon kon li des moom bari bari. d'ici décembre li des bëriwul. li des généralement c' est les c' est les zodiacs les vedettes d' incendie ñoom ñoo war a ñëw ak quelques ambulances quelques fourgons. kon daal yéen fu mu toll nii sapeur pompier lépp lu jëm si jumtukaay. Euh, président fexe na ba yéen jot ngeen si léegi daal jublu si liggéey bi rek. waaw mën nañu fi mu ne nii moom. Hmm. mën na nañu jublu ci liggéey bi. ñu ngi woon sax daa ci liggéey bi. waaw waaw bu baax bu baax nañ ko gën a continuer. te vraiment satisfaction bi mu def ci sapeur yi xam nga mm. sapeur bu am jumtuwaay. Mm. day am day confiant. mais mais caserne yi tamit dafa mel ni war nañ leen gën a. effectivement ci peinture leen effectivement moo tax ma ne moo tax ma ne bu ñu xool rek euh, plan bi moyen yi. Mm-hmm. derrière y a la construction presque d'une trentaine de casernes. Mm-hmm. casernes yi nga xam ne danoo xawoon ki dañ leen reprendre aat. Mm-hmm. reprendre aat seen équipement. Mm. yaa ngi dégg. et puis am na ay compagnie yu bees comme par exemple port ñoo ngi wax gaz ñoo ngi wax pétrole ku wax loolu xam nga ni port ay activité dinañ yokk activité bu yokk risque génn et président bi anticiper nañu wax nañu pour ñu def fa benn compagnie spéciale ah, boo xam ne mooy intervenir foofu euh, loolu la dëgg la euh, ziar ak delloo njukkal euh, sama wóllëre sëñ Sembène fële ca Mbaaw ndax biir raffinerie mhm. ñoom dañoo am caserne boo xam ne dañoo am ay pompier yu fa ne ndax xam nga mhm. wàllum pétrole fu mu am rek lakk su amee euh, il faut mu am ñu taxaw léegi léegi euh, pour taxaw si euh, aw diaat la wax moo colonel ah, mhm. franchement di leen di leen jaajëfal di jaajëfal sapeur pompier yi bu baax parce que avec leurs maigres moyens mm. ci jamono def nañ lu ñu mën li américain di wax pompier su rombee mm-hmm. thank service mm-hmm. parce que yéen a ngi taxaw population bi te yoru leen ko woon mm-hmm. euh, plan bi ngay wax nii nga xamante ni euh, dañ leen jàppale sur tout ce qui est équipement et matériel ça vient à point nommé parce que instant bi je crois que dem nañu enclenché nañu benn dugg nañ ci benn voie boo xam ne Sénégal du moment que léegi ay mine ak yooyu génn na je crois que ne instant bi nag la sapeur pompier gën a am doole war a gën a am doole parce que bu demee ba min génn risques yi li nga doon wax sànq risque day gën a bari pour risque gën a bari incendie incendie day gën a violent bon c'est vrai que fii nii yéen dañ leen daan population bi li mu doon gën a lu mooy dañu trouver dañu trouver que le répondant du 18 nekkul woon noonu xam nga dañ doon woote 18 xëy na répondant bi moo moo amul woon les gens se trouvaient un peu en fait dañu xawoon lésé wu par rapport au 18 ba nga xamante ni bu incendie amee amatuñu woon automatisme boobu alors que automatisme boobu il faut que ñu am ko hmm. il faut que nit ñi gisoon naa sax ne daaw defoon ngeen journée du sapeur pompier je crois que c'est en mai su ma juumul ba nga xamante ni da ngeen di dugg ak population yi di waxtaan ak population yi am na yenn école yoo xam ne tamit gis naa ñuy def ay journée citoyenne yoo xamante ni dañuy jàngal xale yi di leen wan ñan ñu waa protection civile police gendarmerie et tout ça c'est très important mhm. et je crois que de plus en plus instant bi il faut que ngeen gën a rapproché wu population bi su ko defee pour ñu jublu ci yéen mu gën a yomb parce que tamit yéen da ngeen nekk ñoo xamante ni ay militaire ngeen yoo xamante ni li nga wax dañ leen na mettre à disposition de ministère de l'intérieur mais c'est une vocation mhm. euh, sapeurs-pompiers, je ne vois personne de plus engagé que le sapeur-pompier. Mmh. Ils sont très engagés dans ce qu'ils font. Franchement, sauver ou périr non sérieusement ils sont très très engagés. dans ce qu'ils font te loolu ñoom dañ koy dund sauver ou périr dañ koy dund vraiment te dañ ko gëm. mais nag euh, bu leen bu ñu leen jàppale du ma ne président mais bu ñu leen bu bu leen président jàppale tamit <laughs> bon faut le dire il faut que ñu jaajëfal ko ci loolu. ba pare yéen ah, di leen ah Odia jaajëfal président. ah, ah oh. bu defee lu baax dama koy wax bu ah, defee lu bon dama koy wax. heureusement non mais Goulet ah mu jaajëfal président waaw ba tey ba <laughs> tey toujours eh, eh, damay wax daan ba bon. pour les sapeurs-pompiers moom je dis bravo. franchement c'est c'est quelque chose. qui parce que bu ñu jógee maigre moyen naaw 26 milliards c'est quand même. Euh, oui mais parce que parce que tamit at euh, kii bee ko laaj incendie. incendie bi contexte bi laaj na loo xamante ni. Mhm. il faut que mu équiper sa sa kon kon président fu mu toll nii dafa def rek benn positionnement parce que contexte bi. pétrole la ngi ñëw gaz la ngi ñëw il faut ah. ñu rassurer ah, investisseurs yeeg waaw foog ñu rassurer ñu ñun ñi yaa oui, ah, ah, non positif hein? non non positif ouais, opportunisme la positif mais. am na loo xamante ni boo ci bëggee yegg da ngay def les moyens pour yegg ci. Ah, loolu tam dëgg la. dafa mel ni tey rek nga woo équipe nationale bëgg ko yóbbu coupe du monde boo ko hmm. mettre dans les conditions dafa àgg. loolu dëgg la c'est comme ça les sapeurs pompiers su fekkee ne dañu bëgg ñu ñu jàppale askan wi dans le contexte qu'il y a avec toutes les ressources qu'on est en train de de de d'exploiter.

est-ce que par exemple euh, matériel boobu am na accompagnement en moyen parce que boo tegee matériel tam war na am moyen yu ko accompagner. yan xeetu moyen ngay wax. moyen financier bien sûr. c'est-à-dire entretien et tout. Hmm. donc ou euh, formation. non mais mais mais non loolu formation. oui mais loolu dafay nekk seen responsabilité peut-être. Ah, euh, colonel est-ce que ñoom est-ce que am nañ budget. le budget ok. Ah, bàyyi colonel tontu. waaw léegi budget d'entretien bi moyens donc loolu bëggoon naa ko xam. Mhm. également dañu naan bon lu ñu mës jàng ñun que sapeur-pompier sur l' du territoire national la ñuy nekk seen compétence fa nekk. Mhm. cela veut dire que sur les 45 départements waroon na ko mën a am. Mhm. je me suis rendu compte que tout à l'heure que tel le cas mais yéen a ngi ci yéen ci voie bi. c' est tant mieux. également da ngay ni dañu naan que sapeur-pompier dafay dafay ñëw au secours de la population ci incendie. et péril tous les périls les périls de toute nature en fait mhm. bon buy buy menacer en fait la la sécurité publique donc yéen lépp leen engagé gestion des catastrophes environnement inondation et tout maintenant ñun lu ñu gën remarqué fii au Sénégal mooy bon ci incendie accident la leen di gën a gis seen ay sorti est-ce que da ngeen a laisser en rade les autres compétences yi leen transférées ou bien da ngeen gën accentuer wu rek ci ci ci ñaar yooyu très bien alors également euh, bëggoon naa xam bon <laughs> <laughs> naa xam euh, en fait seen euh, seen bilan d'intervention par par exemple. très bien ah ah. par les concernant les accidents. Mm-hmm. les incendies. d'accord merci alors mon colonel. Mm-hmm. Awa moo njëkk a laaj. Mm-hmm. bon 18. c'est vrai est-ce que dafa am problème ba population yi 18 léegi dootul automatisme. waaw balaa may ñëw ci. question boobu euh, awa dafa wax lu am solo parce que dafa nii am ngeen matériel est-ce que am ngeen stratégie boo xam ne vraiment dina leen permettre ngeen gën a rapproché wu population lu am solo la effectivement avant même moyen di ñëw ñun anticiper nañ parce que depuis le premier avril mettre nañ benn unité bu ñuy wax euh, unité de secours médical d'urgence ay ambulance la yoo xam ne c'est médicaliser avec des médecins à bord ambulance yooyu Dakar lañ ko commencé waa SAMU waa SOS médecin waa hôpital euh, principal ak Grand Yoff ñoo leen formé ba fu accident am lu mu ñàng njàng mën nañu dem deuxième chose bi mooy moyens yi ñu am parce que bu njëkk amuñu woon yu bëri yoo xam ne dañu permettre ñu def de l' anticipation mais avec ces moyens là booy xool fii à Dakar ak Thiès de 6 heures du matin à 9 heures parce que c' est les heures de pointe au lieu ñu toog caserne on fait sortir les moyens sur les endroits stratégiques boo de boo xoolee yoonu Colobane bi pont bi partout di nga gis le matin. ah loolu dëgg la entre six heures et neuf heures. et entre seize heures et vingt heures parce que c' est des heures de pointe. Mm-hmm. au lieu ñuy toog parce que boo toogee ba heure boobu ñu sone la pour nga génn ak embouteillage bi on préfère anticiper. Mm. donc loolu c' est de l' anticipation on le fait. Mm-hmm. Euh, pour ñëw ci 18 bi et puis ma ñëw aussi ci balaa ma ñëw ci 18 bi toujours wax nga problème contexte bi mais non nee naa la depuis 2012. ñu ngi commencé monter en puissance non non non awa ko gis nen daal nen nen a ngi parce que loolu yéen a wax noonu waxu na ko seen slogan la ku gis nen da nga naan nen a ngi depuis 2012 commencé nañu monter en puissance bu nit ñi foog ni rek parce que yàlla contexte du pétrole gaz moo tax ñu déedéet polytechnologique boobu 26 milliards yi mais c'est un processus très long yàgg na depuis 2012 yàgg na commencé xëy na day door a aboutir parce que il faut que ñi nga xam ne aussi matériel pompier dafa cher. Ah gis nga benn fourgon pompier. Hmm. ñaata oto nga ci mën a am. yu bëri xamuñu ko. et wax nga ko léegi du ay moyens rek ah yu mais y' a des équipements de protection individuelle. Hmm. vingt quatre mille équipements de protection individuelle. Hmm. casque gants. actuellement nii boo génnee di nga gis tenue yi ñu doon fay lakk sax nekkatul tenue yu bële yi. c' est des surpantalons. vraiment qui protègent le sapeur pompier. méngoog jamono waaw bi. amuñu problème ak disit bi awa dama la koy wax ah xam nga tax. Tunkara hmm. bon euh, waxtaan la. 18 bi les gens d' abord comme c' est une ligne gratuite. Mhm. les utilisent à des fins abusives. da ngay gis ko téye 18 bi suba ba ngoon pompier waa na ngeen def yéen karaj waa pompier man dama leen a nopp karaj pompier moment bi ngay occuper ligne bi am na ku am accident bëgg a dugg mënul dugg. ça c'est un grand problème deuxième problème on s'est rendu compte que la population ne s'est pas alertée dañ lay woo accident am na raccroché <laughs> on est obligé d'attendre le deuxième appel mhm. parce que nit kiy woote des fois du ànd ak sagoom parce que dañuy dañuy paniquer dañuy yàkkamti et puis nit ñi bëgg nañ bu ñu la woowee léegi gis la léegi xamuñu ne yow yaa ngi war a jóge géejawaay par exemple intervenir mhm. yaa ngi war a jógee fii intervenir man ma wax la à titre d'exemple bi may commandé géejawaay j'avais deux ambulances yoo xam ne bu ñu génnee le matin hmm. huit heures ci guddi la ñuy dugg si waat hmm. saa yi ñu génnee intervention ba la ko dem déposé balaa ñoo ñibbi si joxaat leen benn intervention hmm. duñu dugg ci camp bi donc du question ñun awa on est formé pour secourir la population. loolu lañ jàng ko mais colonel naa la bàyyi nga yeggali. mais euh, li ngay wax nii. Euh, population yi tamit yéen. Euh, mooy li soxna yi doon wax rek jokkoo bi nga xam ni moom moo war a am ak ñoom ba euh, éducation boobu am mm-hmm. Mm-hmm. ñu jàngal leen nan la ñuy euh, intervenir mm-hmm. loolu tamit amagul moo tax non am na parce que ñoo ngi def ay journée porte ouverte ñoo ngi def la journée des sapeurs pour ou dañuy def randonnée pédestre maye deret waxtaan ak population bi actuellement ñoo ngi invité les écoles ñuy ñëw sapeur pompier même les maternelles di visiter camion sapeur di ci yéeg ñu leen dugal ci centrale bi ñoom ci boppam ñu jël téléphone 18 di wax di dialogue mais su ko ils sont étonnés mais affaire pourtant ñàngu la nii la nii la nii la donc man problème boobu amul fi mu ne actuellement nii ah, il faut que nit ñi xam ne pompier ñoom ñoo ko moom ñoo koy jëriñoo mais nañ ko jëriñoo te anam bu sell très bien léegi euh, Fatou Fatou dafa dafa laaj mm-hmm. ne est-ce que tey matériel boobu ñu leen jox parce que loolu ñun suñu réew fii problème la fi problème mu entretien problème mu maintenance ñun dañ ko am uh-huh. est-ce que entretien rek maintenance bi moo colonel jox ñu leen tey vingt six milliards rek fileek cinq ans matériel bi yëpp ñu cannibaliser yi yi dee na yi paan na non non non déjà ñun avant matériel bi di ñëw en interne le commandement a pesu a pris des mesures woo nañu tous les mécaniciens woo tous les responsables tous les détenteurs du defal leen formation de sensibilisation sur l'entretien parce que dama naan toujours man nii ñun ñi chaque jour ñuy commandé ay unité loolu mooy suñu axe d'effort parce que un pompier sans moyen c'est pas un pompier moo tax ñun on est conscient que moyen yooyu mooy suñu bakkan mooy suñu jumtukaay yoo xam ne buñ ko amul duñu liggéey donc on est obligé de le suivre aujourd'hui sur le budget des sapeurs pompiers on a augmenté la dotation des commandants de groupement on a augmenté la dotation des commandants de compagnie. budget sapeur pompier ñaata la. ah non loolu moom ñi yor budget yi ñoo ko mën a wax. Ah, man man li ma yor rek laa wax man daal à xam naa ne maa ngi ak budget presque cinquante millions. Hmm. boo xam ne nii am na volet entretien maintenance. Hmm. su ma demee ci sama niveau li ma mën a maintenir. moom lay maintenir tous les jours su ma demee ba am lu ma dépassé je me rabats la portion centrale rapidement ñu ñëw régler ma sama problème. donc ah, yow yow daal à Thiès foofu amuloo sa caserne amoo benn problème. non problème du ñàkk. comme lan yan yan mooy sa problème. man sama problème nee naa la actuellement par exemple matériel du du c'est pas parce que am nañu 26 milliards rek que doy naa. Mhm. matériel du doy matériel lool doy. waaw loolu ñoo ngi ci 30 casernes yi ñëw. ñoo ngi ci yeneen ñoo ngi def leneen ñoo ngi def compagnie port Diamniadio doon nañ fa léegi benn unité yooyu yëpp dañuy monter en puissance. Mm. et ma ma anticiper même ci. ci formation bi. Euh, soxna Fatou si wax. Mhm. on a une caserne de sapeur une école nationale de sapeur pompier en construction. Hmm, waaw keroog président wax na waaw hmm. et président def ci xar tànk tubayam. kañ la war a pare parce que ça ne nga yor jumtuwaay. te amuloo formation. mooy non ñun kay li ñu jaaxal mooy boobu ba léegi lu tax école sapeur pompier amul ci réew mi ah, tamit. kooku da nga koy laaj ñi ko. ah non moom colonel yow koy laaj. lu nekk ah. lu nekk rek dafa am. dafa am temps am temps. bon 60 ans plus tard. quand même temps bi euh, euh, actuellement ñu ngi presque à 75 pour cent du niveau d' exécution d' ailleurs au mois de décembre on a prévu d' une formation. Hein, tout yi jógee Bango. kañ kañ la école sapor pompier bi kañ lay pare. bon loolu mënuma ko wax techniciens yi ñoo ko yor. ñoom ñoo nekk di ko tabax. bon moo moom kenn du ko dugal. les moyens financiers pour les matériel le matériel. parce que. entretien bi nga ah, jox kii Fatou. mënuñu jox matériel. te hmm. joxuñu budget bu ko entretenir. amee ah, loolu am na fii si réew mi de mais en tout cas ñun ci li ma xam même au niveau des groupements. dans leur budget c'est prévu un volet entretien réparation. léegi euh, kii dafa laaj euh, euh, Fatou. Mhm. ne li ñu leen di gën a gis mooy lakk. lu tax loolu. non xam nga lakk mooy li nga xam ne nit ñi gis nañ ko. mais y a un travail deux fois mille fois plus important que les opérations parce que lakk su amee rek c'est parce que jëye am na. Mhm. bu ñu gisee sa précipité rek c'est parce que musiba am na. mais y a un travail en amont préventif qu'on est qu'on fait les visites d'établissement. dañ koy def les commission de sécurité dañ koy def loolu moo gën a am importance parce que euh, fay lakk baax na waaye def tout ba lakk bañ a am je crois loolu moo gën et loolu mooy travail bu gën a am importance sax ba malheureusement c' est pas tellement visible nit ñi duñ ko gis. Mm. mais on a un travail préventif. léegi euh, et puis on a les inondations y' a pas que. y' a pas que les accidents y' a pas que. y' a les inondations bon am na ñett yoo xam moom lakk euh, inondation accident ak lap. yooyu moom la yooyu moom bu leen bu leen dof jaaxalee ku nuy woo. waaw loolu tam dëgg la ku lap ku nuy woo. yéen la ñuy ah, waaye woo leen tamit tamit sapeur actuellement. Hmm. <laughs> nit ñi gladiateur lañ ko def lu xew sax sapeur lañ ci yaakaar. mais y a la réaction tardive qui est déplorée par la population. loolu dafa tax léegi euh, mon colonel ñuy anticiper gis nga léegi commencé poster oto yi parce que yooyu yëpp problème moyen la woon tamit. problème mooy la. parce que parfois ñu woo leen ñu ne amul carburant man j'ai assisté à ça. amul carburant waaw. si j'ai assisté à ça. non dotation carburant dañ c'est un problème c'est une c'est une ça n'existe pas. loolu amul nous tous on a des on a des cartes carburant d'ailleurs on a des cartes. oto yi day am on a une dotation suffisante aujourd'hui moi au niveau de mon groupement. aucune unité ne se plaint d'une insuffisance de dotation à Dakar y a xaw ma kañ la woon mais moment ah, yii. Ah, nii mu nekk nii mais da nga am preuve. loolu loolu a appelé sax du ko wax. Sacré-Cœur même bu amoon même bu amoon pompier du ko wax problème rek. loolu amul. parce que ñun xam nga Tunkara. Mm. ñun instinct sauveteur la ñu mm-hmm. ñun boo nu woowee. boo nu wooyee même bu oto yëpp génnee nga woonu man je n'hésite pas à prendre mon civil pour me porter sur les lieux hmm. jóge naa Louga di ñëw yem ci accident sama sama oto mag sama jabar ma gaare oto bi intervenir woo sapeur yi ñun on est on est formé pour sauver pour apporter des secours mais euh, mënuñu woo mukk ñu naan boo gisee rek mooy li ma rek dafa am défaillance sur la chaîne de secours La chaine de secours, c'est depuis l'alerte, mhm. le premier témoin mhm. qui a procédé à l'alerte. S'il ne s'est pas alerte mhm. hein, s'il ne connaît pas l'adresse bi affaire bi am. ça pose euh, loolu dëgg la te ñun moom dañu am problème yooyu. mais euh, mon colonel dañuy wax ne que sapeur pompier yi seen liggéey ni mu méttee mais li ñu leen di fay dafa néew est-ce que loolu dëgg la. Tounkara bu ma dugal ci ay fay waay ñun ñoo ngi sant bu baax a baax a baax. bon en tant que colonel moom di nga sant. non mais non parce que yow nekk léegi colonel plein ak général rek wax nga militaire ñun ay hmm. militaire lañu. Hmm. régime de solde bi. Euh, régir militaire yi moo ñu régir. Hmm. on est dans dans. amul lu ñu am lu particulier tey ku commencé premier soldat bi commencé nekk sapeur ñaar lañ koy fay. <laughs> waaw loolu xam nga solde c'est c'est personnel et c'est confidentiel man mënumaa xam sapeur bi lu muy fayeeku. non mais yow yow man daal sama salaire laa xam. yow sa salaire ñaar maa ngi sant yàlla. ah en tant que colonel dina sant bu baax. non colonel moom foog mu sant. Ah, <laughs> ñëppay sant Sénégal neex na ñëppay sant. <laughs> parce que moom moom moom moom. moom fi mu toll nii ñaar a ngi sant awaa sant. waaw sant. non ñu ngi sant sant ñëppay sant. <laughs> non mais en est-ce que bu bu ah. dafa am une catégorie d'agent buy dem. par exemple sergent yi wala ñooñu wala. non nous on est dem wala. les organisé woo pour la ngeen naka ngeen par exemple tey su ñu jotee appel pour feu am na lu ñuy wax premier départ. Mhm. premier départ mooy oto bi nga xam ne mooy fay lakk. moom mooy dem. maintenant on peut faire ce qu'on appelle de l'anticipation compte de l'ampleur. rien que le nombre d'appels nous indique sur l'ampleur. Mhm. boobu mën nañu anticiper au lieu ñu envoyé benn camion on envoie deux trois. même la chef peut partir avec camion boobu bu excès bu xoolee nii lii mu yor nii ak lii mu yor mënu ko il demande un renfort mhm. nit ñi ñëw aujourd'hui loolu c'est effectif mm -hmm. ça ne pose pas problème bu dee bu dee accident ambulance bi mooy dem loolu loolu ah. euh, mon colonel mhm. euh, delloo njukkal sapeur pompier yi gaañu woon ci 11 septembre 2001 mhm. euh, gisoon nañ ko à New York vraiment Euh, ñu bëri si ñoom dee fa am nañ ko on a des sapeurs qui sont morts au cours de d'un incendie. Mm-hmm. à Diourbel fii. xam na dafa. dool mais bu bouche d'incendie fii tey euh, si réew mi moo colonel. loolooy problème. Mm. loolu rek mooy suñu problème point d'eau xam nga Tunkara gën a gënal metti sapeur pompier mu ñëw ci lakk. Mm-hmm. génne ay lansam di fay amul ndox mu mën a connecté woo. parce que mm. Mhm. mooy engin bi ñëw normalement ci bouche la war a connecté donc warul am rupture d'eau warul am rupture d'eau moo tax il faut ñu revenir ci moyens yi moyens yi am na ay porteurs d'eau de capacité dix mille litres mais léegi bouche d'incendie yooyu kan mooy kan mooy fautif lu tax amul bouche d'incendie yu dooy doy bouche d'incendie mairie moo ko war a implanté d'accord normalement mm -hmm. avec euh, bien sûr euh, l'État hmm. mais aujourd'hui euh, on a des secteurs yoo xam ne nii. Hmm. boucher oui mais surtout surtout na moo colonel loolu dañu si interpeller promoteur immobilier yi parce que tey munoo ñëw ñu jox la ay hectares rek nga dagg ko cent cinquante mètres carrés cent cinquante cent cinquante mètres carrés maanaam mu dankaloo. Hmm. yow la intéressé rek moom mooy jaay say suuf say. cent cinquante mètres carrés waxuma sax mais amul mais mais yi nga xam ni pompier accès bi. da nga dugg zone yoo xam ne pompier doo mën a agsi. bon loolu si village traditionnel yi la ay Cambérène ay Yoff am am na fii gox yoo xam ne nii boo fa duggee mais attends. ay yëmbal ay ay ay ay ginnaaw raay ah, yooyu. yooyu c'est des trucs yoo xam ne nii boo fa duggee mais am na ci zone yoo xam ne mënoo fa accéder. mais mais loolu tamit vraiment euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ay descos ak ñooñu euh, vraiment war nañ ñu dimbali daal ba nit warul ñëw promoteur. nu la neex nga tabaxee ba pompier bu ñëwee du sax mun jaar loolu tey bu maara day taal bi musiba amee foofu pompier bi du mën a yàgg foofu. mais pourtant nag gis balaa nga tabax. Hmm. Ah, y a un dossier de construction. waaw mais <laughs> d'accord yooyu yëpp xam nañ ko. jaar pompier def AVM ak yëpp. Hmm. malheureusement. mais loolu du am voilà mais loolu la ñuy wax ne que nag donc. Euh, mais yéen lu tax am leen ay canadair par exemple. canadair. Hmm. non ñun amuñu ay canader xam nga c'est les c'est les c'est les c'est les feux c' est les feux de de, de de brousse amuñu ay fore yoo xam ne nii. <laughs> Euh, lakk hmm? boobu. Ah, am nañu am nañu ay canadair quand même. ah yéen ah, soxla leen canadair yaa yaa yaa non ñun. Hmm. feux de forêt du sunu liggéey. Hmm. liggéeyu service eaux et forêt la. d' accord ils ont des camions. d' accord CCF. camions citernes. <laughs> non mais Canadair ah, mais mais <laughs> parce que jumtukaay la rek jumtukaay pompier la. non c' est à jumtukaay pompier mais problème bi mooy. lu nekk ak temps et puis il faut prioriser les choses. Hmm. <laughs> il faut prioriser les choses forêt kon ñoom ñoo war a am Canadair parce que on ne sait jamais euh, parce que ay Tambacounda yooyu souvent dafay am ay feux de brousse yoo xam ne yu xaw a compliqué. ils ont des ils ont des camions citernes feux de forêt. les CCF. yoo xam ne c'est prépositionné à l'intérieur de la forêt. da ngeen di liggéey ah, da ngeen di liggéey ak ñoom tamit. waaw ñun quand ça menace la population souvent on les vient en apport. très bien euh, tey euh, lu mel ni par exemple hippopotame boobu ñu rayoon foofu yéen pompier est-ce que tàggat nañ leen pour ngeen mën a intervenir su mel noonu. bien sûr capture d'animaux dañ koy def. Mhm. moo tax ma ne. hippopotame bi mënoon ngeen ko capturer yéen. parce que hippopotame bi tubaab boobu ray ko kooku mere naa ko de. hippopotame kenn amul sañ-sañ si réew mi seen espèce protégée. Sénégal kenn amul droit rey hippopotame xaw kan moo jox ordre mu rey mu rey euh, sunu hippopotame boobu mais tubaab boobu mere naa ko trop. ñun jàpp nañ jasik Thiès jasik jàpp ko yóbbu bànja jasik bi fu mu fu mu nekkoon mi ngi nekkoon derrière la base aérienne dafa rëccoon foofu ci caniveau yi ñu dem capturer ko. rëccee fan. ci benn benn benn benn verger ku ko doon yar foofu. ah, ah d'accord dafa am ñu doon yar mu rëcc ko ñëw ci caniveau yi ñu woo sapeur pompier avec nos nos dañ koy jàpp. mais bon jafe da ngay ñëw rek mbaal ko jaan da ngay mbaal ko. da nga koy mbaal mais mais yéen doole non loolu bu kenn du ko. mais yéen xam nga doo leen jat yéen sapeur pompier ñëw di jat jaan mais c'est des techniques yoo xam ne jàng nañ ko. waaw loolu la ay jumtukaay yoo xam ne. moom la ñu koy mbaal rek jasit dañ koy mbaal jaan ñu ko mais bu dee euh, hippopotame Euh, moo colonel bu boobaa da xam noo leen koy def yéen. non hippopotame moom nekkuma fa woon sax. nee na <laughs> hippopotame bi. <laughs> non hippopotame yàlla ay hippopotame nit ñi wax nañu lu ne. <laughs> Oh. nee nañu sax dragon. waaw moom la bëggoon laaj man dragon. bi yéen dragon ba may nekk xale di jàng lay ñun ñu ko defal ay légende. waaw dragon mais moom wax dëgg yàlla moom. dragon fii Sénégal kon yéen dragon bi gis leen ko. on n'a pas le la dragon dañuy fàttali rek dañuy fàttali que dragon dégg lu mu wax nee bi ñu nekkee xale doon ko jàng jargon moom la ñuy woowee animal imaginaire. amul fenn <laughs> amul fenn quand même. waa jooju gis dragon nu mu tudd waa ji nu mu tudd. nit ñi aussi la sant en plus. nit ñi hmm. yooyu dafay. dafay dafay dafay indi sentiment de panique ci population. yooyu baaxul quoi da leen terroriser. et puis mu ne moom dégg dégg na ko moom li mu dégg daal dragon mais moom nan la mën a xamee luy dragon. dinaa la nettali benn affaire dina la eh, reeloo. moo ko leer nañ ñu benn jour ñu benn jaan moo nekk ci benn citerne. Hmm. nit ñi daw ku nekk ñu woo sapeur si sunu xale yi sapeur yi kenn moo yéeg ndeke caru garab garab gi tiimoon citerne bi caru bee dagg dugg ci biir di booy bi dugg génne car bi sànni car bi ñëpp yi ree mu la nit ñi. <laughs> Sénégalais xam nga ñun dañu émotionnel dañoo gaaw a dañoo gën a ah, amplifié. dañoo émotionnel bon affaire affaire balaa question bi mujj pour colonel. Mhm. Euh, affaire hippopotame bi ñun Sénégal dafa am euh, lu ñu woowee ay rab yoo xam ni dañ leen aar kenn amul sañ-sañu rey leen. ci réew mi euh, am na ay golo yu nekk fële chimpanzé yooyu nekk fële Kédougou si lañ bokk hippopotame yooyu si lañ bokk gaynde nag moom. Euh, gaynde moom si réew mi pour nga ray ko il faut nga am autorisation président de la république carrément donc ku fi rey gaynde moom bon tubaab boobu rey na suñu benn hippopotame euh, bon mun nañ kii noonu mais gaynde moom bés bu ko rayoon moom vraiment dinañ dinañ dinañ ko jëflanteeg moom yooyu ay espèces protégées lañ kenn waru leen kenn waru leen laal moo colonel euh, faatu moom moo laaj laaj bi mujj nee na bilan ban ban bilan ngeen waaw bilan bi booy seet 1er janvier ba 30 septembre passé def nañu 29000 interventions sur l'ensemble du territoire ci 29000 interventions yooyu 15000 yi accident de la circulation la sauvé nañ ci lu tolloog 25000 euh, personnes malheureusement on a euh, nous déplorons la perte presque de 1500 individus Mhm. En 2018, nous étions à, du 1er janvier au 31 décembre, nous étions à 30 000 interventions. Ce qui fait en moyenne 115 interventions par jour. Wow. C'est compliqué. C'est quand même mmh. beaucoup. Hein. C'est très difficile. C'est alarmant. Euh, c'est euh, de voir bonne stratégie en place. S'il faut anticiper, s'il faut aller parce que mon colonel dañuy wax ne que yéen euh, sapeur pompier bu accident amee bien sûr yéen yaa leen di njëkk ñëw surtout accident yi li muy am si biir euh, gox-goxaat yi foofu pompier yi ñoom ñooy ñëw euh, di njëkk dama gis benn rapport yéen pompier yi ngeen di déplorer naan li ëpp facteur humain moom mooy cause accident. waaw xam nga xam nga accident moom nit ñi experts yi nee nañu nit ki la tali bi la jumtuwaay yëpp. mais li ci ëpp ñun bu ñu demee intervention dañu xam ne lii vraiment négligence humaine la quoi. indiscipline. ñàkk mën dawal wala ñàkk waroon nelaw. nelawoo indiscipline. parce que moom ko nel man léeg-léeg ma gis accident boo xam ne da naan mais nit ki nan la def. boo moom laa lay wax ni tu vois du tout. aujourd'hui sur le sur le tronçon Ila Touba accident sama secteur la accident yi ñu fay def yëpp c'est des victimes coincées. cela veut dire que li ñuy daw. ëpp na jayoo dañuy obligé dagg oto bi te ci jumtukaay yooyu président bi jox nañu am nañu oto yoo xam ne bu ñu ñëwee rapidement mën nañu taxaw dagg oto bi génne nit ki am na sax unité déclarage bu ñuy permettre la nuy hmm. mën na leeral champ d'intervention <laughs> mais euh, moo colonel euh, président keroog gis nañu commencé na liggéey euh, président xam nga moom cortège am toujours dafay am benn Euh, benn oto sapeur pompier. bu mu àndal mais mais ay ak ay médecins yu si nekk. Mm. Euh, mais keroog bi auto président di lakk lu tax pompier intervenir. pompier intervenir nañ. Hmm. fële ngeen waaw ah, xanaa gisoo image. non li mu buggoon a mooy pompier yi nekkoon si oto euh, président. du ñooñu ñoo intervenir. parce que ñooñu ñooñu ay médecins lañ du ñoom duñu ñu fay lakk. ambulance bi accompagne cortège président. Hmm. c'est des médecins. mais am na extincteur. pour les débuts d'incendie hmm. pompiers yi intervenir nañ de c'est que l'affaire est allée très vite hmm. l'affaire est allée trop vite ah, nit ñi jox ko ampleur boo xam ne vraiment demewul woon noonu quoi nu mu demee sincèrement hmm. non ni mu demee ma nekk fa mënu ma ko wax mais ñi intervenir nee nañu vraiment ah, dans un dans un temps très court les gens ont pu intervenir. su ko defee oto bi na tàkk. oto bi tàkkul oto bi tàkkul quoi. oto bi day tàkk. aywa euh, colonel euh, Cheikh Tine vraiment moom kenn du ko dugal nag lu mu wax lay xam. bëggoon naa xam dara. Fatou. pourquoi ñi ko ñoom nee nañ service public la. Hmm. les sapeurs pompiers. Hmm. pourquoi parfois bu amee yenn activité hmm. comme lutte parce que vous êtes censé quand même protéger la population. c'est des activités privées c'est des services rétribués décret présidentiel moo ko wax. moo ko wax waaw c'est bien bàyyi ko mu yeggalee moom la man nii maa koy déglu fi mu ne mais Fatou loolu euh, loolu wéy la problème tey non non waaw doo ma dugal de mooy suffisant vous êtes là pour la sécurité publique oui mais kon kon kuy kuy def sa ordre sa activité rek Fatou kuy def sa activité boo xam ne da ngay wut xaalis di génne ay koppor mm. ah mais kooku wax dëgg yàlla yow yaa war a jël les mesures de sécurité nécessaire. c'est ah, par décret c'est par décret ça ça c'est par décret. Ah même les mais ñun. ñun aujourd'hui dañ ne bu ñu appliquer décret bi kenn du hmm. organiser daal. ñun dañuy waxtaan ak nit ñi parce que ñun lu ñu intéressé du xaalis bi. parce que ñu ci bari ñoom xooluñu. nous c'est pas l'argent mooy population bi fay dem. nan la mën a def ba aar moo tax man toujours. loolu laay ci volet boobu. wala boobu laay mettre en avant waxtaan ceeg nit ki. expliquer leen ba ñu ba ñu. Euh, mon colonel est-ce que tey kii euh, tey ku bugg nekk pompier volontaire. Euh, nan lay demee. boobu amaguñ ko amaguñu pompier volontaire. Hmm. actuellement nu sommes des militaires nu savon un statut militaire pour nga nekk hmm. pompier foo nga def service militaire. waaw am nañu nag recrutement spécial bu ñu président bi accordé compte tenu. suñu montée en puissance. Hmm. mais ñooñu pour le moment c'est les spécialistes. mais euh, mon colonel Télé am na tamit fenn fu ñu leen doon euh, joxoñee mooy stade Demba bi njaaxum boobu di am juróom-ñetti nit di fa dee ay euh, téeméer nit gaañ boobu nekku leen fa bon man de mun nga fekk France. mënuma mhm. wax mais stade Demba ak beneen stade saa yu amee manifestation pompiers yi dañuy jël disposition yëpp a titre d'exemple. am na tournoi de l'UEFOA bu am à Thiès. quand bien même que da ngay ñëw fekk stade bi euh, vide chaque fois je mets trois ambulances je mets soixante quinze gradés sapeurs parce que xamuñu kañ lay am ak fu muy amee. Mhm. et dans tous les matchs de football dans tous les stades pompiers à l'avance ils mettent ces gens-là. Mm -hmm. ça ils mettent mais kon lu tax juróom lu fàq. dafa bu màbb fàq. Mhm. nit ñi ñëw loolu. waaw loolu problème mu conception waaw waaw loolu au contraire bu fa pompier nekkoon mu gën a garaaw. loolu dëgg la. loolu la quoi premier secours yi parce que les catastrophes sont soudaines et brutales munoo imprévisible. munoo ko xam. aywa ah, awa looy jeexale ah di may jeexalee colonel mooy euh, franchement defe naa seen euh, film ne nii on a plus un problème de communication entre les sapeurs-pompiers et la population sénégalaise tey. war ngeen mën a automatisme boobu may wax noonu comme aujourd'hui di ñuy def automatisme yi américain yi di am di wooy neuf di woo 911. Mm-hmm. il faut sànq da nga ni euh, ñun on donne pas la bonne information. Mm-hmm. xamuñu nan la ñuy alerter. Euh, journée nationale du sapeur pompier def ay journée portes ouvertes taxul nit ñi ñëw fekk si leen. Mm-hmm. tout à fait fi mu ne nii sapeur pompier ñoom war nañoo jog dem fekk ji population yi. dans les quartiers. xam nga dem waxtaan ak nit ñi dans les écoles parce que ñu ngi koy commencé def mais man en fait samay doom def nañ ko mhm. euh, mais école privée la woon mhm. mais ñuy dem dans les écoles di waxtaan ak xale yi parce que ñoom xale yi euh, macha allah génération bu bees bi ñoo ñu gën a euh, smart donc ñoom suñu suñu dem seen kër dinañ wax ak seen parents yi nii sapeur pompier boo leen woowee lii leen leen di def nii nga leen di waxee ak ñoom su ko defee ñun ñu dem ba xam naka la ñuy waxee sapeur pompier yi problème am na bés sàngam bërëb sàngam la lii moo fi am lii moo fi am nga xam ne yéen di ngeen gën a mën a liggéey avec plus d'efficience moo ko ne bi nag euh, awa gis nga foofu ñoom ni ñu rawee euh, gis naa sama doom yi mm-hmm. benn si benn euh, dessin animé bu ñuy seetaan tudd Sam le pompier moo ko xam nga ko te xale yi dañuy sama doom da koy seetaan tout ñoom dañuy identifié wu à loolu te ñoom dañ ñoo raw bu baax si wàllu sensibilisation boobu te moo li awa wax ni tey par exemple ay volontaire pompier mënoon nañ ko commencé nga xam ne ñoom seen liggéey day nekk rek dem sensibilisation yee nit ñi mën na nekk parce que actuellement avec euh, ASP yi. Mm-hmm. ñoo ngi xool nañ leen leen pompier nan la mën nan leen mën a jëriñoo. loolu nga wax mën nañ ci putuxlu mm-hmm. mën na nekk canava boo xam mën nañ ko jël former leen pour ñu dem sax mais parallèlement à ça y a un programme de secourisme de proximité boo xam ne euh, le cadre d'action de Yego mm-hmm. moom moo ko sax recommandé woon il s'agissait d'aller dans les établissements du niveau bas hein, introduire la gestion des risques de catastrophe dans le programme scolaire boo demee université euh, bu bu Saint-Louis am na un master mhm. gestion des risques de catastrophe donc comme ni nga wax nii c'est très important ñoo ngi ciy liggéey ñoo ngi mhm. ciy réfléchir et je pense que euh, mën nañu saisir occasion ah, euh, colonel Cheikh pare ngeen nag seen service d'appel bi seen centre d'appel 18 bi mm. xëy na boo leen ko yaatale nit ñi dinañ gën a mën a woote pourtant pourtant awa 18 bi sa à dire Euh, il faut ma wax la benn affaire 18 bi ñun Sonatel moo moo moo moo communication Sonatel moom moo. moom moo ko yor Sonatel non non non du ma accuser sax Sonatel mais des fois euh, mën nga nekk ci biir caserne sapeur pompier. Mhm. woo naa ñoom Pape Djibril Fall daaw ñu mel noonu biir sapeur pompier mën nga fa taxaw composé du mu jox la beneen caserne. Mhm. xam nga loolu c'est des trucs techniques yoo xam ne maîtriser wuñ ko. géré ko mais 18 bi. 18 bi on a des gens 24 heures sur 24. Ouais. qui ne font que ça. ma ne est-ce que. mais dama ni en retour il faut que la population aussi sache. utiliser le 18. certes c'est c'est une ligne gratuite. Mhm. mais c'est pas à des fins. Oui, mais loolu moom loolu euh, moom colonel. nit ñi mais c'est technique ah, ah. ah lu mu wax nii c'est technique ah. mais mais bi 18 bi amul yéen. les sapeurs pompiers ñëpp leen yépp. fépp lañu leen yebee àdduna bi yëpp. ñii dinañ yeewoon naa sama muus bi <laughs> mais mais moo tax ma ne la mais moo tax ma ne la nañu commencer d'abord par régler problème boobu. absolument il faut que ñu loolu yéen la boo ko leen ciy wax. ñoo ngi def sens déggoo li ma la wax. mais dafa doyul nee naa la ñun actuellement. Mm-hmm. à Thiès. Mm-hmm. établissement scolaire yëpp. Mm-hmm. dañuy ñëw di visiter ci sapeurs-pompiers. mais yéen demu leen ci établissement scolaire dañuy dem di def foofu ay conférences. est-ce que dem ci établissement scolaire man damay dem ci établissement yi di surtout les établissements privés di fa def ay exposé mhm. sur le rôle des sapeurs. est-ce que vous avez couvert tous les établissements de Thiès. non on est on est dedans on a un programme. dans chaque secteur wax nañ ko mu def un programme visiter école yi nekk foofu yëpp. moo colonel yow sa sa caserne nga xam est-ce que sa caserne am nga budget communication. non Tunkara ne un budget boo xam ne nii ah c'est des lignes. am nga ligne communication. am naa ligne boo xam ne nii. mën naa ko utiliser pour communication. ligne boobu ñaata si ne. waaye ku tunkara fii nag ndax dëgg yàlla nag. ah nanu wax rek problème mu moyen yi. ko waaw mais mon colonel loolu tey <laughs> wax ko même loolu moyen. nanu wax ci moyen yi rek xoolal mon colonel kaay ma wax la dara. am naa ko ñaata koy def ñaata la. noo koy def. noo koy def daal. mon colonel mun nga ko wax mun nga mun nga ko wax fii tey ne par exemple euh, trois 300000 mille affaire bi euh, ñëpp xam ni dafa néew président dégg ko rek ne eh colonel Tine suba dee euh, dinaa la jox 20 millions. non ñun nag yarewuñu noonu. ñun bu ñu amee problème dañ koy remonter suñu chef hiérarchique chef hiérarchique bi remonter ko chef am ba mu egg ci président. mais léegi budget voilà. communication sapeur pompier am na. budget bien sûr am na. ñaata la ah, mais loolu xaw ma ko man géré ma budget ko. communication donc léegi en en en terme technique. li nga ah. li la awa doon laaj léegi mm-hmm. tey euh, bu ñu wootee 18. Mm-hmm. Euh, standard bi. mënul xa mënul localiser appel bi fan la jógee. ah non numéro bi mën na app day apparaître. Ah. numéro du récurrent. Mhm. moo tax si on n'a pas de complément d'information on est obligé de rappeler, de rappeler. Absolument. pour plus de précision mhm. et moment boobu ñu koy rappeler sax on déjà on a fait déclencher les secours mhm, macha allah aywa colonel Cheikh vraiment euh... loo wax si ñoom Samy. Samy ñu ngi lëkkaloo. on travaille en synergie ñoom ñoo ñu formel suñu unité bi ma la doon wax nii. à l'occasion des grands événements. on travaille professeur Bey on a fait des séminaires ensemble on travaille. Mm -hmm. okay. donc ñooñu vraiment c'est le moment même de les remercier. ñoom SOS médecins. Euh, la chaîne de secours vraiment dafa vaste. Euh, vraiment c'est le moment de remercier euh, le colonel Tine ak euh, le général an ah ñu commencer si moom mais mon colonel yow bëgg nga nekk général. ah. bëgg naa yegg grade de. Euh, yegg grade mooy fi mu doon lieutenant colonel la après lieutenant colonel colonel la. Ah. mais après colonel nag. Euh, général moo stop. non xoolaguma général man naa xool colonel ba pare. <laughs> non colonel bi c'est ma dugal man damaa bëgg nekk colonel. non automatique. parce que laa bëgg nekk c'est pas automatique lieutenant colonel laa. nekk bu ma colonel li ma wax mooy boo nekkee lieutenant colonel yow. ba ma àgg ca. waaw bu léegi boo defee li nga war a def. lu ne mën naa ne. waaw ah. lépp mën na ne. mën na ne. loo gis ci àdduna mën naa ne. waaye pour le moment ba ma ma rek ma lijjanti colonel bi. ama amaguñu amaguñu euh, amaguñu généralu euh, sapeur pompier bu nekk SEMGA par exemple loolu am musul musul am. loolu am ñoo ngi doon am général boo xam ne nii mi ngi issu des. sap nekk si sapeur-pompier professionnel quoi. loolu moo tax ma ne lu jot rek yomb. dëgg la ñëw bul ma wax waxi général man daal fi mu ne colonel laay gis. <laughs> mu la kenn pët xel daal ba ma rek. moo colonel di nga nekk colonel bu soobee yàlla colonel plein. te boobaa euh, vraiment suñu borom yeneen xéewal yëpp dina ko ah, ah, ko indi. ñu ñaanal la li gën a yées la mën a ñaal mooy nga doon général tamit. tout à fait amiin. Euh, colonel lan ngay jeexale maa ngi jeexale di profité dugg ci gannaaw ba ma leen santé remercie leen parce que waxtaan bu am solo biñ ci def jàpp naa ne population bi jural na leen njëriñ ñu baraste ko rek ci màggal gi mhm. rassurer sama sama waa Touba ca kanam yi mhm. nëga ni daaw jox nañ ñu ñaari citerne yu mag ñoom de ak ambulance mhm. renforcer Touba actuellement ñi ngi waxtaan ak ñoom ñi ngi ñuy bëgg a en place des casernes ñii ñu jara sant lañu. macha allah moo tax mën na leen di leen rassurer na leen màggal gi. Mhm. moyens yi ñu président bi jox yëpp lañu fa xëpp. Mhm. déjà autoroute à péage bi. fu ngeen tourné di ngeen gis moyen sapeur pompier yi. rien que pèlerins yi ñëw ci jàmm def seen pèlerinage ñu accompagner waat leen ñu ñibbi leen. Euh, colonel Cheikh Tine euh, delloo ko njukkal li ñu delloo njukkal mbooleemi sapeur pompier yi nekk si mbooleemu àdduna bi yëpp. ndax ñoom seen liggéey ñoom ñëpp ñoom fii seen slogan. maanaam ni ñuy bàkkee seen bopp moom mooy euh, sauver ou périr moom mooy dañ lay sauver wala ñoom ñu dee te loolu mboolee mu pompier ne si àdduna bi yëpp si loolu la ñuy dox ñu kenn amul seen fay ku dul suñu borom delloo ko njukkal euh, di ñaan Bakar Karajo Diagne tey moom la ñuy àndal si machine bi mu may ñu benn xaarandi léegi ñu ànd ak Alpha Thiam moom mi nga xam ne moom moo jiitee Touba ca kanam ñoom ñëpp ñu daal di ànd ci proposition de loi organique numéro 12 2019 bi nga xamante ne moo daal di modifié waaye itam daal di complété li nga xam ne mooy loi organique numéro 2020 bu fukki fan ak juróom ci weeru mai ci atum 2002 mu nga xam ne daal nañ koy modifié li ñu nag dañ ne indi ay coppite ci li nga xam ne mooy règlement intérieur bu pencum ndawi réew mi si ab session extraordinaire bu ñu doon amal ki tey député yi daal di validé li nga xamante ne ni moo ñeel yokk gu ñu yokk yenn commission. ci biir pencum ndaw réew mi la. commission assemblée yi am na yoo xam ne dañ leen a xar ñett am na bu ñu xar ñett am boo xam ne xar nañ ko ñaar loolu lu tax ñu def ko mooy commission yooyu amaana li ñu li ñu waroon a liggéey ak ministère yi ñu waroon a liggéey dafa bëree bëri ba nga xam ne pour plus d'efficacité tas ko dénk yeneen commission mooy gën a opérationnel anam bi nga xamante ne ni moom la ñuy saytoo loi ñeel wàllum finance itam daa nañ ci andi ay coppite mu nekk réforme bu am solo boo xamante ne dana tax ba député yi seen liggéey ci wàllu wili mu daal di gën a gaaw. loolu nag buñ koy def commission des finance day ubbi liggéeyam chaque fois que ñu war a saytu budget benn ministère commission des finance day ubbi liggéeyam commission permanente bi nga xam ne mooy saytu ministère boobu pour que ñoom ñaar ñëpp ñaari commission yi ñu lëkkaloo ñaar ba ñett mën na nekk. ñu lëkkaloo pour càmbar budget ministère boobu mu concerné loolu moo mu nekk loo xam ne dina tax ci wàllu délai ñu gañe délai yu bëri euh, ndaxte fukki fan rek boo ko gañee ci budget bi am na solo te loolu dinañu permettre d'abord ministère yi ñuy waxtaan ak ñoom waxtaan bu xóot. bu weesoo loolu rek ñu daal di sampaab. visite la boo xam ne bu bu ñu yàggoon a waaj la sax peut-être euh, situation bi am actuellement mun na am lu mu ci yokk tuuti. mais boo seetloo bu loolu lu normal la fi nga dëkk cosaanoo fa defe bi ñu génnee élection beeg léegi benn yoon laa fi jotoon a ñëw euh, temps bi mayuñu woon ñu dellu si su dee nag situation bi dafa am nu mu mel ba tax ñu war a gën a mun a justifier ñëw fii nemmeeku mbokk yi dalal leen surtout parce que coow li bëri na waaye dara du am dalal leen euh, euh, waaye it mun a am li ñu fas yéene def ëllëg. jël benn bés boo xam ne dañ koy bokk ak suñuy militants ak suñuy sympathisants. def naa loolu it euh, lu normal la ci homme politique. waaw ay ay kii la rek xam nga birum politique moom dañoo bëri wax bëri lu ñuy euh, yi gonflé ko wax a wax waaye boo seetloo ba seet euh, defe naa coow bu amoon dëgg dëgg dëgg tey du ma teew teew fii peut-être dañ may seet si rëbës. ndax yàgg nañoo wax waaye musoo dégg ñu ne sax ab plainte am na ci Sonko plainte mm. kon jël ay. mbirum politique commission politique dem assemblée def seen show lu ñu fa mën ta wax nag ak lu ñu mën a wax lu ñu mun a teg suñu ndodd loolu yëngaluñu parce que euh, xam nañ suñu bopp xam nañ fi ñu jóge am na nu ñu yaree am na lu ñu gëm moo tax coow yi bëri na pexe bi bëri na waaye doo mës a dégg ni nit jëkkate sax ab plainte dem teg ko. non xam nga mbir yi man maa man maa accusé mm-hmm. man maa déposé plainte mm-hmm. kon man mënu ma nekk ci position défensive mm-hmm. ku dem dem ba déposé plainte tribunal rek moo war a mun a atte ñu wax ndax lim ki mu jiiñ lim ko jiiñ dëgg la wala dëgg mais du assemblée moo ko wax su ma fa demoon sax nit ñi ne lu mu fay def ndax fàttaliku leen ni depuis début bi ci njëlbeen bi bu ñu defee commission bi dama leen ni reconnaître ma commission boobu te du ma wem wuyu suñ ma woowee te loon njukkal Bakar euh, Karajo Diagne ak euh, sunu ñawkat moom mooy euh, Baara First Class Baara fii ci Castor ak Liberté jiitee Touba ca kanam euh, <clears throat> Alpha Thiam Touba ca kanam booy fàttali kañ lañ ko sàncoon. waaw asalaamaaleykum ma waan ñëpp suba man may secretaire général adjoint Touba ci kanam nekk dakaar ñu ngi ko Touba ci kanam ñu ngi ko créé en 2016. moom yàggut euh, ñetti at rek la am nit ñoo si bokk. waaw départ bi nag xam nga dañ ko créer woon ci réseau sociaux yi. Mm-hmm. Euh, parce que dañ doon ñaxtu Touba bëggoon. exemple Touba ni mu war a mel ñu mel ko ñu ciy ñaxtu ci loolu maanaam lu war a am Touba te amu fa. yow doomi Touba nga. man nag doomu Koumpentoum laa mais damaa toxu si ñëw Bawol. nekk tu nekk léegi waaw très bien nekk mm. Koumpentoum laa juddoo yaroo fa jàngee fa. Mm. Eh, ma leen di nuyu au passage. léegi ba ñaxtu pour Touba am lii ci la suñu xel dem ñu ne euh, dénoncer rek yomb na mais trouver solution aussi mooy yoon ci la suñu xel daj ne nañ leen créer benn association. wutul Touba ca kanam. seen Touba ca kanam ni ngeen koy defee euh, lu yomb la mooy képp koo xam ne ci la bokk rek. Mhm. weer wu ne sas nañ ko mu joxee ñaari téeméer. Mhm. loolu boo ko déggee euh, yomb na mais maanaam li mu jur tey meññeent yi mu jur dafa doy waat parce que dañu dégg tubaa ca kanam réalisé nañ nii jox nañ waa sapeur pompier la lay alfa loolu doy na waar. waaw xam nga mbir mu am rek ñoom comme ñun taalibe yi bu ñu demee ba wut ndigal ba am ko euh, ñu ngi ñaanal. sëñ Sidi Muxtaar yàlla yokk leeram moo ñu joxoon ndigal li ba mu ko joxee ndigal li ñu dem gisi jëwriñam tey ji nga xam ne mooy xalifa mooy xalif général des mourides euh, Cheikh Mountakha Bachir yàlla yàggal ko fi loolu tànd wér mooy presque ci ñu njëkk adhéré ci Touba ci kanam mais idée boobu suñu jëwriñ nga xam ne muy euh, sëriñ Abibu mu sëñ Fàllu moo joxe woon idée bi ñëw taxaw ne ñuy connecté wu bari na lu ñuy def nii bari na mais tey bu ñu amoon ñaari million murit ku nekk nga joxe ñaat téeméer hmm. weer wu dee rek ñaari milliards ñaari milliards yooyu noonu la ñu ko waxee woon de ñaari milliards yooyu boo ko jëloon tey nga jox ko benn entrepreneur ne ko dama bëgg nga pavel ma Touba mën naa la ko pavel weneen weer wi tamit nga yëkkatiwaat ñaari milliards yooyu nga jox ko ne ko dama bëgg nga éclairer ma Touba dañu Touba ñu ne attends ci lañ taxaw nag commencé ci loolu hmm. def ci communication yàlla dimbale ñu kilifa yi bëri ñëw adhéré ci lu mel ne tey sëñ Mountakha. tey fi mu toll nii euh, Touba ca kanam weer wu ne di ngeen dajale ñaat ci xaalis. weer wi mu weesu rek exemple pour donner un exemple dajale nañ 72 millions. exemple hmm. weer wi passé. mais tey bu ñuy wax ne jusqu'à présent tey lu luñ encaissé exemple tey war na mat ay un milliard et poussière. si at mi. non ci depuis tàmbale ko ba léegi exactement 1 milliard 328 millions. léegi xaalis boobu lan ngeen ko def. voilà départ bi dañuy njëkk a dajale xaalis bi am xaalis teg ñu ne lan la ñuy def suñu xel daj ne nañ leen dem ci sant ci lañ xool ne xam ne Touba très bien mhm. am na gabu cent postes de santé ci cent postes de santé yooyu ñu ne léegi nañ commencé sa santé ci lañ wax ne d'est ouest nord et sud fu ne dañ fay def benn poste de santé ci lañ commencé dem gisanteet nit ñi lañ njëkk commencé mooy ñu teg lu ñuy wax Touba Lansar ñu mhm. commencé fa benn mhm. commencé benn defar war a benn defar benn fu ñuy wax Kër Gol Touba Kër Gol defar benn fu ñuy wax Touba euh, Bobareel def benn fu ñuy wax euh, Touba Daaru Xadim mhm. léegi yàlla jàpp ñu ñu financé bu Touba euh, Daaru euh, Lansar équipé ko ba mu pare si valeur bu 150 millions ba livré nañ ko depuis 6 mois mu ngi continuer di fonctionner. fu mu toll nii ñaata poste de santé ngeen def yoo xam ni taxaw nañ ñu ngi dox. benn boobu mu ngi dox beneen bi d'ici gannaaw suba incha su gannaaw suba dimanche bi incha allah dina ko inaugurer. ñu ñu jox ko population bi. Hmm. beneen bi dans 2 mois dina pare Daaru Xadim dans 6 mois dina pare. Euh, loolu muy poste de santé ginnaaw santé lan ngeen defaat. waaw ba loolu weesoo en même temps ci biir loolu ba ñuy financer loolu suñu xel dem ci mbiru assainissement. ñu dem jënd juróomi oto mbalit pour nga xam ne uniquement pour teg ko foofu hmm. mu dem fa ñuy fàttali ne aussi ci ndimbal parce que dañ Touba ci kanam tas na ba dem ci diaspora bi tey hmm. mu ngi ci lu mat une soixantaine de pays soixante et hmm. nga xam ne ba Russie ñoo ngi fa ñooñu tamit surtout waa itali waa France dañuy def de telle sorte que non seulement dañuy contribuer mais aussi dañuy fexe xool loo xam ne tubaa Touba yooyu na ko ñu indi ko. pompier yi lan ngeen leen defal. voilà sapeur pompier yooyu suñ mbokk yu nekk diaspora bi ñoo fexe yónnee ñaari ambulance yónnee benn citerne boo xam ne 5000 litres la boobu dañu amoon problème mu euh, Touba pour nga. am problème mu euh, jumtukaay. Euh, léegi nag ci lañ jël. ñu yónnee ñu camion boobu ñu defar ko moom kii ko. Euh, jël aussi ambulance beeg camion 5000 litre boobu jox ko pompier yi pour bu dara amee ñu nekk ci. est-ce que loolu dafa am solo ñun bi ñuy tàmbali fii di wax Sénégal ca kanam. avant 2016 la woon quand même. boo <laughs> non non non ñëpp mën nañ jël parce que jubluwaay bi moo doon lii ah mm-hmm. tey bu ñu euh, waa Touba ne Touba ca kanam waa Kaolack ne Kaolack ca kanam waa Tamba ne Tamba ca kanam. waa Koumpentoum ne waa. non c'est vrai même Mbar ca kanam am na. Mbar ca kanam boo xam ne vraiment ci loolu lañ xalaat. ba créé ko ba sama benn cousin ñu ngi ciy def lu mat lu am solo lu mel ne ay morgue pour seen dispensaire bi yooyu yëpp ñu ngi ci ñu leen ciy félicité aussi vraiment bu ñëpp defee tamit c'est exemple loo xam ne ñëpp a ngi ci Fatou waaw bon lii moom li ñuy wax rek ça il faut le dire quand même système d'entrepreneuriat bu murid yi dafa dafa nekk un modèle ah, bu ñu war a jël quand même ça il faut le parce que engagement bi solidarité bi générosité bi dafa nekk seen sacerdoce te loolu ñun dañ ci war a jël modèle c'est-à-dire toutes les entreprises mm-hmm. ak même le pays pour un développement économie et social mm-hmm. parce que loolu mooy doxal réew mm-hmm. par exemple lii ngeen def nii xaar ñu état par exemple population bi ñoo jug ci seen bopp xam ni seen dëkk soxla na lii imaginez le màggal à quelques mois du màggal quelques jours quelque non ci bi ñuy commencé di jënt inondation bi woon tey du baax Touba kenn du fa taxaw parce que inondation daf leen sonal assainissement oh mais nag am na dëkk yu bari maa ngi dégg dem démb ñu ngi jooy manque d'eau daaxul miir na mais ñoom mënuñu régler yëpp moom ak yooyu je sais pas si yooyu def ngeen ci ah yéen a ngi ci mm-hmm. waaw ñu ngi def appel dañu def appel ba laaj ñaan leen mais nag ñoom seen jubluwaay surtout mooy indi seen participation mais pas régler problème yëpp mais fu problème am war na fi mën a <laughs> loolu loolu parce que loolu mu wax ñun Touba ji kanam xalaat nañ loolu ba jël jënd lu mat vingt citernes cinq mille litres yoo xam ne cinq mille lay doon mm-hmm. fi ñu toll nii suba suba danañ ko placer biir Touba yëpp. Mhm. nga xam ne foo teg 5000 litres xëy na. Mhm. balaa ngaa wax ne ñàkk nga ndox mën naa am suñ terne bi ñëw du yaatu. Eh, ko wax. Mhm. à quelques jours. ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci nañ ñaari forage yoo xam ne aussi avant màggal gi. ñu amoon problème mu pompe ñu dem jënd ko ba monter ko ba forage yooyu di dox aussi. macha allah Fatou dafa nga am loo koy laaj wala. Ah, awa train bi. le train là. xam nga il y a deux ans hmm. train bi transporté woon nee nañ quarante mille hmm. pèlerins hmm. daaw doxul ren ma dégg Tunkara sa benn mbokk Tunkara c'est c'est c'est un syndicaliste bu nekk chemin de fer mu ne à une semaine puisqu'on est à une semaine du màggal et que voie Thiès Dakar dafa moo am problème ci lañ nekkoon pour euh, defaraat ko mu mujj ñu sotti donc le train du dem année bii du yóbbu pèlerins yi. Mhm, comme daaw comme daaw. donc imaginez quarante mille pèlerins. lu mun a reposer daaw problème dafa amoon. Mhm. léegi yéen pour avant moi je me par rapport aux initiatives yi ngeen di def. Mhm. mënoon ngeen wax ak ñoom peut-être. peut-être ay détails la. Mhm. ñu régler ko ñoom ñëpp mën a mën a dem. bindal boobu sëñ Alpha. aywa <laughs> no non suggestion bu am solo. waaw euh, Mame Mbaye Tunkara euh, fële ca moom cheminot boobu euh, di ko ziar moom tamit aywa waaw alfa xanaa di leen jaajëfal. lenn la ñu xam ne Touba ca kanam. jàppal ma jàppale de wala. ñoom waxuma jàppal ma jàpp sax rek. mais dañu am pas-pas dañu wane ne pas-pas moo yor réew parce que xaaruñu. xaaruñu et ce modèle qu'ils ont ce modèle euh, bi ñu indi c'est un modèle de développement pas seulement communautaire mm-hmm. c'est un modèle boo xam ne ñun peut-être même suñ ko xooloon tey du ñu toog sax bay soxla institut institution financière yi pour ñun di toog c'est-à-dire que pour di leen soxla comme Ghana ni mu def xëy benn bés rek affranchir boppam mm-hmm. parce que tamit euh, dañu jël seen destin en main et Touba ca kanam dafa wane ne ñun mun nañ jël suñu destin en main mm-hmm. pas-pas la ñu wane bañ ko bëggee dañ ko def dañu jàppalante te tey nii ñaar téeméer la ñu laajte mais nit mun na ñëw ci yéeneem ne man mhm. joxe naa million ci mois bi nga gis am benn xewel na ah man de tey moom Touba ca kanam ñaar téeméer la ma laaj mhm. mais man joxe naa quinze mille mhm. ak neneen ak neneen ak neneen ba nga xamante ni euh, dinañ gën a mën a jàppale population bi sànq dafa commencé auto assainissement. Mhm. muy volet bu am solo nga dagg ko mu ne moom joxe nañ cinq auto mbalit mais mhm. pareegul woon defe naa. Mhm. waaw parce que pareegul woon muy volet bu am solo. parce que Touba loolu dafa nekkoon loo xamante ni dafa metti woon ci ñoom dañu am problème d' assainissement. ndox tamit di lu gën a jafe pour Touba. parce que keroog recevoir oon nañ fi euh, sa xarit boobu euh, Touba laay fàtte. ba muy jooytu ndox mi am diggante Mbàkke ak tuuba ne ndox mi baaxul te ñëpp xam nañ ne ndoxu Touba neexul. Mhm. ñu daal di ci tamit loolu taxaw ci. santé nag te foofu laa leen gën a nawee mooy da nga ni da ngeen def quatre postes de santé. Mhm. est ouest nord sud. Mhm. maanaam quadrillé ngeen seen secteur. ba ngeen xamante ni benn baa ngi fonctionné beneen bi ce sera dimanche incha allah. te yeneen yi dans deux mois. Euh, Touba ca kanam daal dañ leen di ñaanal liñ naan. gudd fan ak wér. wér ak wér li yàgg fi te wér. yàgg fi te wér parce que nag euh, nit tamit buy def loo xamante ni def ci def pas-pas def ci pasteef ànd ceeg vraiment ngëm danga ci da nga koy félicité di ñaan yàlla yow ci sa bopp boo ci mënee jàpp nga jàpp ci boo ci mënul jàpp nga jàpp sa sa waar yow tamit. noo euh, euh, awa loolu man dama si ànd ànd boo xam ne amul fu mu yem. Mhm. ndax léeg ñun dañuy jooy loo xam ne. ndekete yoo ñun mën nañ ko faj. ñun ñoo solution bi yow maanaam euh, dam ko yàgg wax daal tey boo ñëwee gox nga boo xam ne amu leen ndox. ok wala amu leen làmp wala amu leen école léegi d'accord yaa ngeen di xaar état ñëw bon état ñëwagul te état pour mu ñëw léegi état daa xaw a diis état daa xaw a yéex. mais yéen lan ngeen defagum. Mm-hmm. léegi nit ñi duñ defagum dara man loolu daal man sama sama yitte la Alpha. soxna aw dana ni yow assainissement bi wàllum da doon wax sànq ñu ñu dagg la ñu ji si tuub nga ni juróomi oto mbalit ngeen si def ak lan. waaw xam nga ci côté assainissement boobu fi mu toll nii tembe am na quartier yu bari yoo xam ne dañu nekkoon ci ay ndox. ñu ñëw fexe nga ci ndox mi jënd ay moto pomp nga ci ndox mi ba pare dem wuti ay suuf jënd ay camion suuf yu baree bari finance si lu bari ñëw ràmbale ko. bañ ko ràmbalee léegi lu mel ne mbaar ya tey. pour nga jóge boo jóge woon Dakar di dem jumaa ja boo muyul mbaar yaa waa mbaar ya mooy Madiyaana jógee foofu pour ñëw jumaa ja yaa leen di njëkk hmm. tey jii yàlla dimbale nañu ba tey fekk ràmbale nañ ko ba ñoom ñu dem léegi côté uh-huh. côté assainissement boobu ñuy wax insha allahu fu mu toll nii moo nekk suñu xar tànk tubéy ba nga xam ne tey hmm. luñ bëgg mooy insha allahu d'ici at yii di ñëw ndox mu ne toq biir Touba jaar ci kana génn te du fenn du taa. alhamdulilah mais solution urgente bi nga xam ne ñu ngi koy def mooy loolu rek nga ci ndox mi ràmbale ko nit ñi ñëw ci màggal gi mu jàll. ci hmm, ah, côté waaw ci côté boobu def ko rek maanaam xéewal la moom. voilà ci côté boobu lu mel ne tey maa ngi ñëw ci nga xam ne environnement soxna faatu intéressé na ko ma am lu ma ko wax ne ko le mois passé. fexe nañ ba reboiser mille cocotiers yoo xam ne diggante Mbàkke ak Touba tey ji kuy màggali di nga ñëw xam ne Touba changé ndax def nañ fa benn grillage boo xam ne mille cocotiers lañ fa def. junni garabu koko koko lañ jënd def ko fa. sëñ bi feeluñu macha allah ñëw jox ñu cinq mille euh, kii nu mu tuddati xay. Mhm. ne nañ fexe penc yi ak ñëpp ñu séddale leen ku maanaam lu ñu bëgg rek mooy Touba naat. Touba doon non. incha loolu danaa jël équipe spéciale boo xam ne mooy arrosé garab yi moo koy surveiller mooy def lépp ba nga xam ne aussi tamit nit ñi duñ ñëw ñu teg noonu rek la mu daanu mais am nañ benn équipe boo xam ne. Alpha Mamadou Thiam li ngeen def yéen euh, Touba ca kanam vraiment loolu dañu si woo mbooleem yi Sénégal yëpp lii lu lu maanaam. yomb na yombut. yomb na mooy kenn ku nekk tey war ngaa amoon ñaar téeméer nga joxe ko pour sa gox loolu loolu loolu du dara. mais euh, awa saan daf ko laal ñun tey loolu soo ko yaatalee sax daanaka ñun suñu réew yi kenn ku nekk bu joxee li mu li mu am li mu mën ak li mu yéene rek soo moytul ñun yu bëri nañ ko saafara du soxla ñun ñuy am ay bor du soxla kenn duñu euh, takk taxawal Alpha euh, message bi nga bëgg mu leer si bopp ñëpp lan la. waaw pour message bi ma bëgg leeral. maanaam comme ni nga ko waxee sànq Sénégal pour ñu développer ko yomb na exemple yooyu déjà daaw pour ma jox la benn exemple dañu ñëw fekk Touba lëndëm ñu ne léegi pourquoi pas suñ benn sëriñ proposé ñu ne ñu mais ku nekk bu jëndoon làmp def ko sa buntu kër mu koy taal jëlee ko timis ba 6 heures di matin fépp ay leer Touba ci kanam jàppandu ci loolu lancé Touba leer nañ ñi mhm. ñu dem jënd ay lampadaire fexe yombal ko ba nga xam ne dañu fexe jaay ko nit kii nit ñi lu yomb pour ñu koy def seen buntu kër ay lampe LED pour mu leer ci li ma bëggoon wax mooy aussi tunga mooy mbiru social bi Touba ci kanam du question rek ne nañ barkeelu ko ne mille francs ñu def ko Touba non dañu bëgg ñun nii nga xam ne ñooy membre yi no seulement mille francs yooyu dañ ko tegee de côté mais dañu dem ci benn volet social boo xam ne chaque mois ñun membre yi dañuy jaayante lu luwaay am rek nga jaayante ko maanaam xaalis bi nga joxe sëñ bi dañ xaalis bi kenn du ko laal du dugg fenn lu dul développe Touba mhm. en ñun dañu war a ñëw di jaayante chaque weer wu dee comme man nii mën naa jaayante cinq mille yow 10 million loolu mu doon xaalis boo xam ne xaalis social spécial la boo xam ne pour dimbale ñu nekk Touba kese la tey problème mu dialyse problème mu yu bëri am na fa. ci xaalis boobu ñi nga xam ne moom la ñuy joxe par mois nga xam ne jotewut ak dara ak 1000 francs yi. moom lañuy jël di ko dimbalee nit ñi de telle sorte que dañuy def social Ramadan social euh, Tabaski. lu ne ñu dimbale parce que Touba dafa bari ay sancaan sancaan yooyu sëñ bi daf ñu joxoon ndigal daaw nañu nañ fexe ba ndox mi yegg si si ñoom yàlla dimbale ñu si taw fee xam ak si ñaanu sëñ bi ñu fexe ba tey jii nii dépense ci lu baree bari loo xam ne ndox mi tey boo demee lu mel ni sancaan yu bari ñu doon am problème mu ndox jox nañ leen ndox daara yi aussi la même chose mhm. fexe nañ ba équiper leen rénover ko ba nga xam ne daara yi tey danga nga doon ñëw ci daara boo xam ne du am toilette wala du am fu mu toog te fépp dañ ko doon jàngale gratuitement mhm. ñu fexe ñoom tamit daara yooyu équiper ko rénover ko ba mu baax pour ndongo daara yi duñ mën a dem yalwaani duñ def fenn. alpha te loolu social spécial la. aywa bokkul ak xaalis bi dara. loo xam ne nit nañ koy euh, jaayee euh. euh, dama bëgg a rebondir ci loolu parce que Touba ca kanam nit ku nee tamit da nga koy waxal jëwam mooy seen transparence dans la gestion des biens. Mhm. des lépp a leer. lépp YouTube ngay dem xool ko. Mhm. chaque mois. il font un rapport mensuel. te lépp leer. tout le monde y a accès boo demee YouTube weer wu ne gis affaire yëpp ne ñaata la joxe affaire fu mu jaar. waaw déet da comme télé ne te wax na. Mhm. ay chiffres ñu leeralal tamit nit ñi ne. Mhm. ca kanam lépp a leer. Euh, loolu euh, yow Alpha soxla nga ciy wax soxna si waxal na loo koy nekk. voilà <laughs> laa bëggoon jaarale non munoo am avocat euh, <laughs> may nañ la ko. comme comme avocat. Mhm. daal moom mooy li wér. Alpha yow lu tax nga ñëw fii du rek jay ak kañ yéen li ngeen def mm-hmm. mais surtout wane ni que affaire bi mën na ne aw jaak xoolal tey ñun quinze millions sénégalais lañ suñ ne woon dañuy am programme boo xam ne sénégalais bu ne ñaar téeméer weer wu ne quinze milliards la bu dee fukki weer muy cent cinquante milliards mm-hmm. kooku boo ko jàppee noonu loo xàcci <laughs> mën nga ko dóor mu daal. duñu soxla Bretton Woods. dégg loolu kon euh, ñun ñun tëx Masaalikul Jinaan wan nañu ko. wan nañu ko parce que Tayib Socé mii pour mu génnee kaso. bañ ko bëggee def nañ ko wan nañu ko. gars yi rapidement ñu ñu dajale euh, ñu dajale cent million waaw mm-hmm. donc ñun mën nañ ko te sénégalais am na yéene boobu léeg soo ko woowee si kaay joxe moom euh, am na ko joxe li nga wax awa ñaar téeméer mais am na ku mun joxe million. Mm-hmm. am na ko mun joxe sax milliard. Mm-hmm. te ñooñu mën nañ koo joxe kon daal tubaa ca kanam mii. ñoom dañ leen di ñaal suñu borom. mu teg loxoom si ñoom. ba lépp lu ñu xàcci suñ borom yeggali ko. ba seen njortu suñ borom maanaam kawel ko lool ba ñu fekk ñoom maanaam seen i sëtaati sët di euh, baawaan si ñoom xéewal yi nga xam ni ñu ngi koy def ci tubaa léegi nag loolu benn la mais beneen. mooy euh, waa euh, Tiwaawan ca kanam. ñu ngeen di xaar Njaasaan ca kanam ñu ngi leen di xaar waa Cees sa kanam ñu ngi leen di xaar waa Kaolack ca kanam ñu ngeen di xaar waa Kumpantum ca kanam tey maanaam kenn ku nekk yow da nga war a xool ban participation nga war a indi ci sa ci sa réew euh, soxna faatu moom la John kenn Kennedy doon wax njiitu réewu Amérique boobu ne euh, nit ki warul toog rek di laaj lan la sama nguur di def pour man lan la sama réew di def pour man mais moom war na laaj boppam lan laa war a def pour sama réew xam nga kenn ku nekk su laajee lan la war a def pour réewam rek mooy xidma googu nga xam ne euh, cheikh cheikh cheikhul xadim moom si loolu la doon dox euh, di si delloo njukkal sama wëlëre euh, sëñ Abdou Aziz Mbacke moom bind téere si xidma wane ni que xidma googu maanaam nekk au service de kenn ku nekk su ko jëlee def ko moomeel rek yow danga nekk au service de ta famille au service de ton quartier au service de ta ville au service de ta région au service de ton pays yow soo amee xel boobu xalaat boobu rek par force di nga def dara te bu ko ñëpp xàcceendoo dóorandoo ko soo maytul euh, ñàkk dina wàññeeku euh, feebar dina wàññeeku euh, ñàkk jàngi dina wàññeeku ñàkk jumtukaay dina wàññeeku sunu réew yi jëm ca kanam delloo njukkal waa Touba ca kanam ñëpp nag ñi ko tàmmaleeg ñi siy joxeek ñi si am yéeneeg ñi siy bay waar ñoo ñëpp ñaar suñu borom mu fay leen gën di fay Alpha loo jeexale lu may jeexalee rek mooy di la sant aussi Fatou jotoon na fi posé benn question boo xam ne nañu ñaanal rek ba nga xam ne social boobu ñu ngi koy def ëllëg dina ñëw tey ba nga xam ne lu mel ne problème mu chemin de fer boobu nu ko sëñ mun sëñ Modou Moustapha defee woon xëcc raay bi ba fële xëy na yàlla dinañu dimbale ñun tamit tey ba nga xam ne pourquoi pas ñu fexe ba am financement boo xam ne dañuy wax ne Ila Touba sax day am gratuité mais lu ñuy wax rek mooy que incha allah màggal gaa ngi ñëw ñu ngi ñaanal ñëpp ñu fekkee ko ak jàmm salaam Touba ci kanam incha allah dañuy fexe ba nga xam ne pèlerin yëpp bu ñëwee Touba dañuy nekk à l'aise te danañ ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm ñu ngi koy sant ñëpp vraiment di leen gërëm di nuyu aussi vraiment di ko ziar suñu sëriñ suñu koo xam ne vraiment mooy suñu xal mooy suñu jëwriñ muy sëñ Abdoulaye mu sëñ Abibu hmm. sonn lool ci liggéey bi ak waa comité directeur bi yëpp nga xam ne ñoo ma yebal fii vraiment di leen wax ne euh, bu ñu demee daal danañ gis ne Touba ci kanam slogan bu ñu wax li dinañ ko fi maanaam laaj luñ mën di ko def fuñ xam laaj liñ mën di ko def ca euh, fañ xam euh, sëñ Tuubaa nee na moom si ñett rek la doon yëngu xam-xam jëf ak jikko ju baax ñett yooyu moom mooy tax euh, nit ak gox ak réew ak dëkk ñoom ñëpp jëm ca kanam Babacar Karaaju Jaañ rek ñuy may benn xaarandi su ko defee ñu dugal suñu beneen gan ca kanam delloo njukkal euh, Bakar Karajo Diagne delloo njukkal euh, Bara First Class Dame Ndour moom moo jiitee remise remise ab kuréel la goo xam ne moom Dame Ndour jàngalekat la euh, ñoom li ñuy yëngu rek moom mooy fexe ba jàng ak jàngale bi gën a jàppandi Dame di la nuyu la ziar de Sagara. Mm, waaw Tunkara maa ngi leen nuyu aussi di la ziare di la sargal yow tamit di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu ñi nga xam ne ñoo toog di seetaan 2STV yëpp. sa euh, remise mooy lan daam. bon remise euh, euh, moom réseau la boo xam ne kuréel la goo xam ne li leen tax a jóg moom mooy fexe ba lépp loo xam ne dafa addu ci ndimbal éducation rek ñu boolante ko tënk ko def ko benn kuréel bu tudd remise. loolu mooy yéen li ngeen di yëngu lan la. bon ñun ci li ñuy yëngu depuis bu ñu commencé ba léegi mooy. Euh, loo xam ne dafa àddu ci dossier enseignant yi maanaam ñi nga xam ne dañoo war a avancer wala ñi nga xam ne dañ leen war a intégrer fonction publique wala boog ñi nga xam ne dañoo war a jugee contractuel extra extra ak tamit euh, ñi nga xam ne dañoo former ay kuréel yu mel ni suñu bos nga xam ne dimbali éducation moo leen tax a jóg ñooñu tamit euh, ñoo ngi fexe nu ñu àndee ak ñoom gën a saxal gën a yaatal mutualisation. léegi tey li nga bëgg mu leer lan la. Euh, li ma bëgg bu leer euh, bokk na ci li nga xam ne d'abord mooy euh, remise remise d'abord lan la ak li muy def réellement ak lan moo ko tax a jóg. loolu bëgg naa mu leer. léegi loolu wax nga ko ba léegi. Oh oui mais xam nga bon boo ne ma. non li ëpp solo nag. moom mooy. Mhm. maanaam ñi lay seetaan. Mhm. ñoom ñu. Mhm. ñu xam ban message nga bëgg jottali. message bi ma bëgg jottali mooy. waxtaan ak enseignants yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal yëpp nga xam ne maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ku ci nekk turam ak seen santam di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoo ma nekkal ci département yi ñi nga xam ne ñooy sama président d'antenne départementale ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu tamit ñi nga xam ne ñooy samay point focaux nekk ci IEF yi ak yaay yi ñoom tamit maa ngi leen di nuyu euh, di nuyu képp koo ah, xam ne enseignant la rek <laughs> non c'est important c'est c'est important Tunkara ñu yi ñëw léegi si message bi. c'est c'est parce que Tunkara ñooñu. il faut ma nuyu leen parce que tey ñoo tax ma toog ci plateau nuyu leen kon waaw <laughs> parce que tey ñoo tax ma toog ci plateau donc moo tax mënu ma leen ñàkk beral nuyoo ko voilà donc euh, di wax na rek euh, kuréel gii di remise euh, li ko tax a jóg du lenn lurul comme li ma fekk ngeen di waxtaanee loo xam ne participation responsable lañ koy wax ci tubaab maanaam gis mbir moo xam ne Euh, xaw na sooxe nga bay ci sa waar mooy li nga xam ne tey euh, nemmeeku nañ ko ci njàng meeg njàngale mi lu jëm ci carrière enseignant yi euh, ñaxtu yi ñuy def chaque jour donc ñun tamit ñu ne bon comme ay enseignant lañ te wax dëgg yàlla comme ni ñu koy waxee ci olof rek mbéjum karam borom moo koy fajal boppam pour pourquoi pas ñu former benn kuréel ñu tamit jéem yëngu ci loolu ah jéem a xool nuñ ci jàppee donc loolu moo tax daal baax na ñu ñu amal kuréel bi ah fas yéene daal. Euh, waaw jàngalekat bu nekk gis ci boppam. Mhm. waaw xanaa di ko gërëm ci mhm. teewaay bi. Mhm. léegi euh, nga ne remise da ngeen euh, pour mutualisation la. mutualisation oui. d'accord léegi man dama la bëggoon laaj. waaw yéen ci anne scolaire bii ñuy waaj a démarrer nii. nga xamante ni dafa sooxe. nit ñi tiit nañu parents d'élèves yi xamuñu professeurs yi naka la ñuy comporté woo après. lan ngeen ci liggéey. lan ngeen ci tax deet may ma kay ma yàggale allez-y waay mm-hmm. donc euh, lan ngeen ci mm-hmm. taxawee mm-hmm. ak yéen déjà kañ ngeen commencé liggéey ak ban taxawaay ngeen am déjà par rapport à l'éducation nationale déjà votre rôle qu'est-ce que vous faites avec les professeurs naka ngeen di taxawee ak éducation nationale ak état ak kañ ngeen euh, commencé seen action yi ngeen di def euh, xaaral maa ngi lay maa ngi lay nuyu. di la remercier également ci uh-huh. ci ci ñëw bi. Uh-huh. bon initiative bi quand même baax na c'est c'est uh-huh. non parce que effectivement. actuellement. éducation dafay traverser période bu doy waar. donc volonté bu ñu jógee je sais pas vous êtes enseignant. waaw je suis enseignant oui fonction donc euh, regroupement d'enseignants là. et vous êtes un peu partout au Sénégal. nous sommes partout. vous êtes partout. Pas ah, un peu partout, nous sommes partout au Sénégal. Pas un peu partout, vous êtes partout nous au Sénégal. Nous sommes partout au Sénégal. Donc, et vous êtes combien à peu près Bon, à peu près, bon, nous sommes... Parce que, bon, euh, donner un chiffre exact, ça va être très difficile. mais ce que je peux vous dire mooy bi ñu commencé. réseau bi à la wax daam ñaata ñu. on est mille et quelques. parce que on a cinq groupes WhatsApp qui sont pleins. aywa ah loolu la waaw et les cinq groupes WhatsApp vous connaissez un groupe WhatsApp ça contient deux cent d'accord et les cinq sont pleins. oui les cinq sont pleins donc ngeen activé pour en fait euh, les élèves la. Mm-hmm. y a l'enseignement secondaire mooy universitaire ou bien. il y a il y a même les enseignants qui sont dans le privé. même ñi nga xam ne ñoo ngi ci privé bi sax ñoo ngi ci biir parce que am na ay présidents d'antenne yoo xam ne ils sont dans le privé. mais euh, c'est primaire secondaire universitaire. bon non pas universitaire. donc c'est primaire primaire secondaire et moyen. ok voilà. donc de l'élémentaire way ouais. primaire moyen waaw primaire secondaire. bon universitaire aussi bon ñu ngi xool parce que tamit comme réseau la boo xam dafa baax ci wàllu enseignement. Euh, ñoo ngi xool nan la ñuy defee bokk na ci perspective yi. ñu yéegal ko ba ci ba ci enseignement ay jalon euh. parce que ay am yu réussir wala yéen naka ngeen compter def vraiment pour pour euh, participer am non pas naka lañu ñu compter. naka la tendance là à la dégradation bi ngay déplorer nii. oui lan ngeen di teg wala fan. lan ngeen def ko yan action nga ñu mën a wax ne moom ngeen def yan jalon. action bi ñuy def bi ma la ci mën a wax mooy bu concret la parce que ñun. tey bu enseignant amee jafe-jafe ci wàllu dossier am dafay contacter monsieur Ndour le président de remise. ñaata dossier enseignant. ngeen topp saytu ko ba mu sotti. bon loolu euh, pratiquement membres yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réseau bi yëpp parfois dañ leen di xoolal parce que dañ ñooy remise dafay jàpp ci suivi bi mais ñun nekkul ñun ñooy signer acte par exemple benn enseignant mën na ne. xoolal leen ma sama avancement non ñaata dossier ngeen topp. way ba ñu sotti ba seeni borom kontaan. Euh, à peu près ay 600 dossiers yooyu. après du 600 dossiers parce que bi ñu njëkkee saytu dossier amoon nañ 400 validations. am trois cent et quelques intégration ak ay reclassement aywa léegi euh, année scolaire bi aw jaag dafa laaj mhm. yéen lan ngeen def parce que mhm. école mi ngi ubbi yi mhm. jaaxa di am nit ñi di tiit prof nan lañ nar a def ak yooyu lan ngeen def pour prof yi euh, jàngale mën a dal kan moo kan moo ci awa voilà question boobu dama ciy ñëw waaw waaw ñu lay dégg euh, question bi mu laajtee je crois que bi may njëkk a commencé mooy kañ ngeen ko commencé. j'espère que loolu la bi mujj. waaw waaw bi njëkk mooy. waaw euh, lan mooy seen taxawaay. lan mooy seen taxawaay pour année scolaire lan mooy seen taxawaay ak euh, éducation nationale. vous êtes effet tampon ban effet tampon ngeen am entre ñoom wala c'est quoi. c'est-à-dire euh, bon xam nga ñun bi ñu amee xalaat bi. Mhm. li ñu njëkk a def. mooy contacter ñi nga xam ne ñoo nekk ci IEF yi. les inspections de l'éducation et de la formation. contacter tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci inspecteur ak inspection académique yi. mooy léegi depuis kañ la depuis kañ la kii. Euh, réseau bi mu ngi commencé le 13 juin 2018. bon yàggul waa léegi. waaw euh, année scolaire bi tàmbali parce que laaju aw bi dafa am solo. oui année scolaire mi ngi tàmbali ñiy tiit est-ce que tey di ubbi tey jàng tey est-ce que ren grève yi président si boppam nee na mi ngi woo syndicat yi na nañ dal. Mhm. Euh, lan ngeen def yéen. Mhm. yan jéego ngeen teg pour année scolaire bi mën a jaar si yoon. très bien. Euh, je crois que man bu ma déggee ministre bi wala euh, président di wax ci loolu damay yaakaar ne ñun ñun lay waxal parce que apaiser weesuwul ngay saytu dossier enseignant bi ki nga xam ne dafa am njàqare toog na 10 ans avancé wul nga jël dossier am saytu ko dem fonction publique parce que man déplacement yooyu lay def. Hmm. su fekkee dossier bi fonction publique lañ ko war a régler damay dem ba fonction publique xool dossier bi fan la toll. yow yaay dem personnellement. man personnellement man may dem. yow 600 dossiers yëpp di 600 dossiers doo ko toppee noonu par par tranche la da ngay jël benn loo yóbbu ko comme si tey fu may wax ak yow am na trois listes yoo xam ne mu ngi fonction publique ñu war ma defal vérification mais 600 yooyu même bu ñu ko defee par loo yow personnellement Dame Ndour yaa leen topp ba ñu saytu leen ba ñu sotti ah bien bien sûr avec mes contacts ministériels Hmm. oui parce que bon amoo ay yooyu. ah mais bien sûr pourquoi pas am ay collaborateurs mais danga ne ma kan mooy dem saytu ko ma ne la man maay dem saytu ko mais am nañ ay collaborateurs. parce que nous sommes structurés. très bien léegi lan naa am nañ ay président d'antenne un peu partout c'est-à-dire dans partout au Sénégal ah, département bu nekk am nañ fa ku ñu fa toogal. Euh, lan ngeen def nga ni. pour mhm. année scolaire bi dal. lan la ñuy def depuis avant année scolaire bi commencé ñoo ci ñun vacances pratiquement amuñu ko. lan ngeen def. li ñuy def mooy. enseignant bu foo mënti nekk Sénégal soo amee jafe-jafe woo ñu soo ñu wooyee ñu ñu bay ci suñu loolu mooy principe bi mais lan ngeen def concrètement pour année scolaire bi dal <laughs> année bi lan moo koy dalal Tunkara lan moo koy dalal lu fexe ba enseignant bi du am njàqare ci dossier am ci loolu la ñu nekk way kii dossier bu ñu ko réglé rek année scolaire bu sànq ah, xam nga sànq dama doon expliquer bi ma laajee Tunkara soo ma laajee da nga may may ma tontu ah, non si parce que sànq da nga may laaj lan moo tax a jog jóg euh, remise mais quand j'explique da nga may couper da nga may dagg. du ma a yegg non non benn objectif laa la wax. Ah, ah, ah. mooy le suivi des dossiers des enseignants. ci loolu laa doon wax. beneen objectif bi mooy fédérer les initiatives de soutien beneen bi mooy ci biir groupe WhatsApp bi on participe aussi à la formation initiale des enseignants mooy lan. des fiches pédagogiques ah enseignants yi dañ leen di former léegi si WhatsApp. mais bien sûr yéen si WhatsApp ngeen leen di former. non pas formation bi nga ko waxee noonu mais boo dugalee benn fiche boo xam ne c'est une fiche pédagogique enseignant bi mën ci xool xool yan tànk lay teg bu jugee fii fan lay dem fiche boobu mën na ko enrichir participer ci formation foofu lay wax ak yow. mais pas mm. aussi nga jàkkaarloog nit ki euh, explication orale sax for am na formation. parce, que formation WhatsApp quand même bon dina xaw a tuuti. lan moo ciy kéemaane. waaw kéemtaan gi moom. non yow yaa wax formation WhatsApp man dama ne la. on participe à la formation des enseignants dañuy dugal ay fiches pédagogiques enseignant bi su si comprendre da daf may woo wala mu woo ku ko xam parce que y a des inspecteurs parmi nous. très bien léegi. Euh, li ko jàppee formation WhatsApp mais moi j'ai ah pas dit formation WhatsApp par WhatsApp. à travers WhatsApp mais pas une formation WhatsApp. si tous les dossiers des enseignants. oui réglé a plus de problème est que day marché. Euh, bon bien sûr. Ah, euh, dina wàññi lu dina participer dina dalal dalal enseignant bi parce que enseignant yi loolu mooy seen problème. seen problème yëpp mooy loolu dossier bi. léeg-léeg enseignant daf lay woo euh, moi je suis enseignant oui. je comprends très bien et je suis en contact direct avec les enseignants chaque jour ba tey jii nii sama portable su ma paree ba minuit dañ may woo téléphone xam naa lu ne ci ñoom enseignant luy seen jafe-jafe mooy loolu seen dossier bi nu muy doxee s'ils comprennent mais effectivement mais benn problème pédagogique dafa am euh, problème euh, matériel dafa am. Uh-huh. problème mu euh, prime yi dafa am. Uh-huh. problème mu rappel yi dafa am. yooyu uh-huh. yëpp c' est est un ensemble ah. na mais bien sûr mais xam nga xam nga. très bien. voilà exactement. voilà léegi li ma wax mooy. jëndal benn laa la remise dafa ñëw pour bay wàllam ci waar wi. da ngay ñëw bay sa waar ci wàll wi. Hmm, mënoo def lépp li mënoo def lépp tu ne tout faire. li nga mën mooy xaaral ma jàpp fii kii jàpp fee kii jàpp fee. jàppal ma jàpp jàppal ma jàpp. puisque tu parles d'apaisement de l'année scolaire. waay ce que yéen da ngeen ci intervenir. Mm-hmm. Euh, dem par yi wala dara. parce euh, waaw foofu xam nga tey man bi ma xalaatee ne war nañoo wax ak autorités yàgg na parce que bi ñu taxawalee remise ba pare dañu ne. Euh, avant ñuy def lii par exemple xam tey ministère de l' éducation nationale mën a taxaw di ma xoolaan di ma seetaan naan waaw kii mais dañoo dem foofu toog ak ñoom wax leen initiative bi lan la ñu ne ñu yéen lan moo leen. tax a jóg yéen doo leen ay euh, syndicaliste. non duñu syndicaliste. yéen daal da ngeen fexe nekk tampon. lu bees teq la daal. initiative la boo xam ne. dara taxu ko lu lu jàpp ci mbir mi fi mu ci mën a jàpp mu jàpp ci. nekk ci dossier yi surtout nag euh, wëy di doxal. dossier enseignant yi mhm. ba li si lëjoon. Mhm. ngeen lijjanti ko. waaw ñi lijjanti ci liñ ci mën a lijjanti. aywa euh, très bonne question parce que euh, initiative bi aussi biñ koy doxal dañ ko doxal ak bénévole c'est des actions bénévoles Euh, par exemple amul benn enseignant Sénégal bu la mën a wax ne woo naa Ndour jox ko dërëm mu régleel ma sama cas man je me déplace volontairement je prends les dossiers je bu dem ci ministère bi nga xam ne moom la concerné ma réglé ca la ma ca mën a réglé li ci des ma dem xeetu Touba ca kanam la daal moom euh, laajul dara day c'est bien euh, jàppal foofu nag bañ a bàyyi bañ see laaj dara mhm. su ko defee suñu borom mun na koo mun na koo barkeel et puis mhm. mun na bañ a yàqu ko mhm. am nga xaalis bu duggee rek léeg-léeg soo moytu affaire yàq bon Dame Ndour dañ ngay jeexale Euh, Tunkara euh, li may jeexalee mooy maa ngi woo enseignant yi Sénégal yëpp ñu ñëw jàpp ci mbir mi ku ci ne lan ci man nga jàpp ko ci parce que comme li ma wax sànq Tunkara mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam dëgg la am na ñu fi nekk di def ci liggéey waaye ku ci nekk mën am na foo mën a jàpp parce que damay di wax ne euh, comme li may gis ci télé bi defar Sénégal jarul xëccoo wala defar benn mbir jarul xëccoo ku ci nekk boo xëyee am nga foo war a mën a commencer. loolu dëgg la loolu moo tax ma jàpp ne man mbir mi am na lu ma ci war maa koy def te di ci woo enseignant yëpp ku ci nekk nga ñëw fas yéene jàpp ci mbir mi ñu mën koo doxal régler suñu système bi ndax système bi ñun ñoo ko mën a régler suñu bopp les enseignants. loolu bon enseignants ñoo ko mën a régler suñu bopp no non non nag ñëpp ko seq mais déggoo li ma la wax. dama ne la am waar wu ñu si war a bay voilà très bien parents d'élèves yi am na lu ñu war a bay <laughs> système bi mm-hmm. élèves yi am na lu ñu si war a bay mm-hmm. autorités yi mm-hmm. municipalité yi nangam na am kenn ku nekk si waaw bien sûr parce que parce que dafa yaatu quoi système wax système rek ku ay sous système waaw ah, ay sous système ñooy former système euh, delloo ko njukkal moom euh, daam Ndour li mu wax dafa am solo mais en tout dama bëgg nga may ma tuuti balaa nga may delloo njukkal parce que aussi xam nga bu ñu toogee fii dafa am ñu tax ñu toog fii c'est très euh, important léegi daam. ñooñu. Mhm. na leen yàlla fay. non d'accord mais mais après yow da ngay xam nga lan ngay def da ngay non non dem service commercial nga <laughs> jënd temps d'antenne. non déggoo li ma la gërëm leen. no waa 2STV dégg nga waa 2 ma seen fay. vous savez pourquoi. pourquoi laisse-moi terminer Diagne may ma benn xaarandi Dame Ndour gërëm nañ ko sant nañ ko. d'accord merci beaucoup maa ngi nuyu ñëpp. ok delloo njukkal euh, Bakar Karajo Diagne euh, ak euh, sunu ñawkat Bara First Class docteur Mamadou Diallo la ñuy jeexalee tey docteur Mamadou Diallo moom jàngalekat la waaye dafa am at mu ne si amerique ñoom dañoo tàmm di sargaal nit ñu ñuul ñi. tuddee ko Black History Month muy weer woo xam ni bu février jotee dañuy sargaal nit ñu ñuul ñi. wax seen démb kañ leen génne yu baax yi nga xam ni nit ñu ñuul ñii dañ ko doon def ren nag daa am lu bees lu am mooy dañ koo fas yéene indi ci réewu euh, Afrique yi moom mii ci wàllum Sénégal moom mooy ki ko fi jiite docteur Mamadou Diallo ñu ngi lay nuyu di la dalal di la ziar. bismillah rahmaani rahim salaamaaleykum Tounkara salaamaaleykum Awa salaamaaleykum Fatou di leen gërëm ci li ngeen invitation nga ñu invité man nag euh, dama di euh, ki nga xam ne moom mooy jiite kuréel bu ñuy mooy Black History Month fii ci Sénégal ñu dënk ma ko ak ay xale yu xarañ di leen saluer au passage di leen aussi remercier ci invitation bi. aywa euh, loolu moom ñun ñoo lay delloo njukkal si ñëw bi nga fi ñëw mais Black History Month ay kàddu anglais la yuy wax naan weer la woo xam dañ koy jagleel nettali démb nit ñu ñuul ñi. Euh, tey boo ñu koy faram-fàccee lan ngay wax. waaw Black History dafa am dafa am euh, histoire dafa am fu mu cosaanoo te fu mu cosaanoo mooy bu ngay boo ko bëggee xam da ngay dem ba ci at atum junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom ak ak fukk ak juróom. muy 1915. Hmm. bu boobu ci ku ñuy wax Carnegie Woodson moom ak benn abbé bu ñuy woowee J.C. E. Moulin dañu créer benn kuréel. bu ñu tuddee association for the study of the life of the negro and history of the negro mooy kuréel bi nga xam ne mooy saytu nit ku ñuul histoire ak dundam ñu moom lañ njëkk a créé bu ñu ko créer nag ñoom lu doon li loolu njëkkati woon mooy ni dañu gis nit ku ñuul lañ ko suufeel ci jàng bi jàng bu ñu leen di jàngal dañ leen suufeel maanaam état américain jëlu leen en compte ci lépp moo tax kaata jun wut som li mu def yemul ci loolu dafa bind benn livre boo xam ne mu ngi ko mu ngi ko publier ci atum junne ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett muy mu tuddee le the miseducation of the negro la mauvaise éducation du noir ci foofu dafa wax ni nit ku ñuul ci Amérique nuñ koy tàggatee dafa sore cosa arab cosaanam dañ ko jëlul en compte ci dara léegi nag dafa dafa jot am état Amérique jël ko moom historien la mais dañ leen dañ leen dañ leen soofaloon daal bu mu créer loolu ba pare nag mu bind livre bi mu liggéey ak Jesse Moorland ñu liggéey ba atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn te at boobu nag la ñu changé association bi tuddee ko maintenant Association for the Study of African American Life and History maanaam ngeen gis ni dañu dañu dafa dafa changé jóge ci négro dem ci africain américain pour wane ni ñoom concept yi ñuy utiliser am na solo ci ñoom trop ndax xam nga négro dafa ànd ak esclave dafa jóge ci niga nga xam ne rab la ñëw ci négro daal di jóg avancé dem naat ci africain américain waaw loolu rek day wane ni rek ni ñoom seen seen seen seen personnalité ak seen seen euh, euh, identité dafa fragmenté wu te mooy waaw. Uh-huh. léegi kon euh, boobu ba léegi ñooñu bi ñu ko tàmbalee euh, sa di di jàng surtout di gëstu nit ñu ñuul ñi seeni i mbir euh, taxul woon mu am weer woo xam ne moom la ñuy jagle nit ñu. amuloon weer semaine weer woowu kañ kañ nañ koo tàmbali. balaa muy am weer dafa am semaine ba pare ndax ñoom bu ñu defee association bi changé tur bi dañu créé ba loo xam ne Negro History Week mooy semaine histoire nit ku ñuul moom la ñuy moom la ñuy sox ci ci 1926 boobu bu ñu ko créer nag léegi ñu ne dañu war a def lépp pour nga xam ne au moins at bu nekk dinañu sargal benn semaine boo xam ne dañ koy sargal nit ku ñuul ci états mais dañu jël ñaareelu euh, semaine mois de février jël ci ñaari dat ñaar mooy atum fukk ak ñaar muy juddum président Abraham Lincoln an atum fukk ak ñeent muy juddum. Frederick Douglass nga xam ne moom ci noir yi dafa nekk ki nga xam ne ku liggéey la esclave la woon boo xam ne bu mu bu ñu ko affranchir bu ñu ko bu mu amee. Euh, liberté waaw bu ñu ko gorelee dafa liggéey ba devenir ambassadeur dafa xeex nag ñu jël ñaari nekk ñii dañu war a sargal. Mm-hmm. moo tax ñu jël ñaari deuxième semaine bi ak ñaari dates yooyu chaque année nag ñu jël semaine boobu di leen ko di ko sargal. léegi kañ la tàmbalee nekk doon weer. dañuy pour mu doon weer nag dañuy xaar ba 1976. balaa boobu boobu la ko Gerald président Gerald Ford def officiellement mu doon fetu Amérique nga xam ne léegi état bi nangu na ni léegi légal na. léegi balaa boobu. waaw en 1960 ak euh, civil mouvement civil right bi atum fu doomu aadama yi ñu ñuul ñi. boobu nit ku ñuul dafa commencé woon gis ni identité am léegi war na mun ko war na ko mun a sàmm te boobu nag la américains yi ñooñu ñu def influence wax ni dañ koy changé mun mu jëlee ko di semaine. mu doon un mois te boobu ci 1960 la woon. léegi mais université bu ko njëkkee bu ko njëkkee fete nag mooy Kent State University boobu ci atum junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent 1969 ñooñu mu am benn kuréel boo xam ne ay étudiants la ñu woon ne dañuy dañ ko war a wasaare léegi. baax na léegi ñu daal ko célébrer le 1960 ñu def première célébration léegi nag mooy li ma wax. dina tàmbalee doon. ci la Gerald Ford ne léegi war nañu mun a nangul ni ñoom am nañu ay ay jëf yu fi def yoo xam ne war nañ ko war nañu ko war nañ leen sargal. léegi nag euh, Sénégal moom ak Afrique ren ji guléet ñu ne dañ ko fi nara a sargal. waaw xam nga lu ci war ko war sargal Sénégal ndax dafa fekk ni nit ñi ñuul yi dañu xeex États-Unis Canada ñu xeex parce que ren mooy juróom fukkeelu anniversaire u célébration bi États-Unis fanweer juróom ak ñetteelu. célébration wu Canada fukk ak ñaar fukk ak juróomi sanweeru Angleterre ñu nga xam ne te ñoo ñëpp ay nit ñu ñuul ñoo xeex parce que boo demee fenn ni Canada ku ñu naan Jean Augustine 1987 maanaam atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar la jël mu dem ci euh, chambre des communes ne léegi dañu war a sargal nit ku ñuul yàlla def nag ñu may ko loolu ñu commencé ko célébrer nest pas par la la de noirs du Québec et la Ligue des noirs du waaw 1987 waaw léegi euh, fii Angleterre nag uh-huh. état euh, Royaume-Uni boobu moom 1995 la léegi euh, ren jii si Afrique guléet ñu nar ko fee sargal ñu nar ko sargal pas guléet parce que Sénégal lañ ko doon sargal mais de manière sectaire nit ñi dañ doon ñëw man man par exemple daaw def naa def naa conférence am na ñoo xam ne de ku ci nekk sa boor da musul doon weer boo xam ne dañ koy def comme nu mu war a doon ren ren nag lu ci lu ci lu ci lu ci bees mooy dafa am fukki dëkk wax naa la ni fukki juróom juróom-ñett la léegi fukki dëkk ak ñaar fukki waaw fukki réew ñaar ci Afrique ñoom ñoo dañ koy dañ koy dañ koy célébrer dañ koy sargal te moom si Sénégal tam ci la bokk. Mm, te yow mi yow yaa man maay secrétaire fédération. léegi léegi léegi fii fii lan lañ fi nar a def si Sénégal. fi li ñu fi nar a def ci Sénégal mooy ni dañu jël benn date boo xam ne mooy la mooy le 7 février muy atum de euh, euh, gënum àdduna Cheikh de Diop naat fi def benn événement bu mag national lu ñuy def nag mooy la journée des leaders africains et des bâtisseurs noirs mu war am projection am panel am discours d'ouverture mais balaa boobu nag dañu bëñ ci dugal xale yi parce que xale yi ñoom ñoo yor ëllëgu ëllëgu Sénégal ñu bëggoon ñoom ñoo ubbi ko dañuy jël ci Sénégal junniy xale dañ leen di coordonné nga xam ne dañuy ñëw fii am hymne yoo xam ne comme hymne du Sénégal hymne de la diaspora ak hymne boo xam ne comme ñaan yi ak anglais ak français ñu pour ñu mën a conscientiser nit ñi ci valeur u histoire Sénégal ndax ñun da ngay war a seet nit suñu suñu aada daf ñu xam dafa xaw a sooxe daal. Mhm. toppatoo nañu ko. aw oh, jaag. waaw euh, Tunkara xanaa di ko di ko gërëm ci teewaay bi. c'est parce que Black History daf nekk loo xamante ni dafa am doole Amérique. Mhm. et ak Canada euh, waaw waaw <laughs> mhm. <laughs> léegi daal euh, c'est vrai que Amérique dañ fa euh, noir néew na fa doole torop néew na fa doole torop et je trouve même que Sénégal fi mu ne nii ñu xaar ba léegi soog ko xëy na def. dafa dafa xaw a yéex. Mhm. parce que tamit nous disposons aussi de Gorée. Mm -hmm. qui est un patrimoine et qui est très euh, le rôle de Gorée dans la traite négrière. vers les vers les Amériques et tout. c'est benn rôle la boo xamante ni dafa am doole avec Ouida. Mhm. et te xam naa ne Black History Month bi damay ragal ne est-ce que pays anglophone sax gënuñu ci dugal seen bopp ay Ghana parce que Ghana tamit gis nañu le retour vers la source. Mhm. à la source. Euh, américain di dellu siwaat gannaaw ñu leen di nationaliser di leen jox ay business di leen jox ay suuf ñuy ñuy liggéey mm-hmm. léegi euh, ci Black History Month boobu ñuy wax noonu nga xamante ni xëy na da ngay am ñoo tamit ñoo leen jëlee foofu andi leen fii pour xamal leen Sénégal xamal leen histoire du Sénégal mm-hmm. est-ce que tamit euh, am ngeen beneen volet boo xamante ni dina tax ñoom bu ñu ñëwee fii mën a xool ay opportunité mën ci jàppale Sénégalais ñoom tamit est-ce que tamit bëgg ngeen topp euh, canevas bi Ghana ubbi ci retour aux sources de certains euh, africain américain euh, kii kii di gërëmee ah, on va les blacks. africain américain comme voilà nit ñu ñuul ñi. Ah. bu ñuy dellu si waat est-ce que ñoom tamit am na ñoo xamante ni bëgg nañu ñëw Sénégal toog Sénégal ñu ubbi leen buntu yi tamit voilà. Ah, xaaral tuuti Fatou wax ci xalaatam. donc di la remercier quand même ci présence bi Black Story Month moom ñun ñëpp ko xam xam utilité bi donc l'identification identité de la race noire donc hmm. dañ koy delloo njukkal partout bon ren le fait que Sénégal accueillir que c'est une très bonne chose hmm. ay américains c'est-à-dire que ñoom ils se déplacent dañuy ñëw hmm. avec des africains également loolu la am na un nombre approximatif wala ñaata yooyu tontu après di nga <laughs> nga wax euh, nombre bi. wax également est ce que da ngeen def des activités culturelles. yuy wane par exemple culture ru Sénégal. et tout yeneen yeneen pays yi ñëw. wax nga léegi Cheikh Anta on peut pas parler de bon identité de la race noire sans oublier Cheikh Anta. donc c' est une très bonne chose. maintenant est ce que y' a d' autres noirs ngeen war a sargal également. Euh, après Cheikh Anta est ce que y' notamment donc. Euh, en Amérique bu mu fa doon am est-ce que toujours des des noirs la woon wala il est arrivé une fois ñu jël un africain sargal ko fa ou pas donc ça également j'aimerais bien est que euh, Amérique mos nañ sargal doomi Afrique euh, bon waaw Cheikh par exemple. Cheikh moom mun naa leen jox lu leer ndax fekkee naa fu ñu ko sargalee ñaari yoon conférence. Diopen Sort lañ ko tëdde conférence of Diopen Sort. la conférence de la pensée de Cheikh Anta Diop ñu ngi koy def depuis vingt neuf ans ren. Fili. Mhm. Fili Temple University ñoom ñoo koy ñoo koy accueillir. voilà parce que. Mais est-ce que loolu ci Black History Month la bokk ci la bokk et les gens viennent d'aussi loin que pour parler de leur théorie sur Cheikh Anta à part Cheikh Anta parce que laaju euh, laaju faatu bi dafa am solo tamit à part Cheikh Anta est-ce que am na yeneen nit ñu ñuulu Afrique yoo xam ni foofu ci Amérique dañ leen di sargal si Black History Month bi bon apparemment man xawma ci keneen koo xam ne dañ ko ah sargal mais aussi hmm. am na Mahmoud Mohamed. c' est un africain boo xam ne ndax moom la ñu wax si Mohamed Yoro. un africain boo xam ne il s' est libéré lui même. te bu mu libéré woo moom un américain a fait son portrait. un américain très célèbre. et ça c' est important. mais ay ñoom Anta ma jigéen Ndiaye ñooñu tamit war nañ leen. waaw waaw waaw Mandela c' est Nelson Mandela aussi ñu koy sargal. Ah, Nelson Mandela c' obvious. c' est sûr. c' sûr mais Mouhamadou Mouhamad il a une histoire. qui était magnifique. il a liberté. il liberté am. Mm-hmm. jënd ko ba pare moom déjà avec son charisme dañ ko dañ ko dañ ko. le dafa yéemoon nit ñi. Mm-hmm. on a fait son portrait. c'est mm-hmm. c'est un des rares cas. mais ay ñoom Antama jigéen Ndiaye ban jigéenu Afrique par exemple lañ fi mos a. bon moom je ne sais loolu moom yéen ah, soxna yi war ngeen si war ngeen si bay waana parce am na lu ñu si lu ñu si war a def léegi kii dafa laaj euh, Awa moom moo njëkk a laaj ne est-ce que dafa am ñu nar a jóge Amérique ñëw fii buñ boo leen di sargal Black History Month fii. dinaa ko dinaa ko ci tontu parce Ghana. ñoom bokk nañu ci ci pays war a organiser on a j'ai des contacts ak par exemple tey laa doon wax ak kenn ci ñoom koo xam ne moom bëgg yënd ga mais c'est le dernier pays à à mm-hmm. au groupe ñu si des c'est des pays francophones ah, mais Ghana ils ont déjà franchi le pas parce que Ghana moom c'est vraiment donc le leader en termes d'intégration parce que ils ont ouvert comme vous avez dit la voie mm-hmm. aux Afro-Américains ñu ñëw ñun tam loolu la ñuy wut ah. mais ce qui est important pour nous ñoo ñëwal seen bopp Parce que l'initiative vient donc d'une dame, d'une Guadeloupéenne, afrodescendante, qui vit au Canada, n'est-ce pas Qui célèbre chanter au Canada avec euh, Ndeye Marifal, qui est son mentor, comme elle nous dit. Chaque nañ on célèbre foofu. kon léegi canevas bi gën a teg. parce que laaju awa bi loolu la woon tamit. Sénégal tamit dañu. Sénégal bëgg nañ ko. mais fu mu nekk nii il faut quand même ñu def ñu ñu poser les premiers pas mooy def organiser mais ñun programme yi ñuy yi ñuy proposé. ci lañ leen di attirer parce qu'on veut quand même créer donc un réseau de tourisme intellectuel. aywa léegi euh, Fatou. oui hmm? euh, xaar ah, sa ci am mooy nit kii rek parce que on a dit basi bâtisseur africain et inventeur noir. Hmm. donc ce qu'on va faire il y a un programme scolaire. le programme scolaire c'est quoi. on a demandé au lycée on a y travaille pour ñu jël lycée bu nekk da ngay jël benn leader africain wala de la diaspora nga def def un speech. Mm-hmm. def benn benn sketch. ba pare def benn genre présentation biographie ça permet aux, aux enfants d'être impliqués directement. mu yaatal aussi euh, le spectre des leaders léegi nombre bi. Euh, Fatou dafa laaj. pour le nombre on ne sait pas pour l'instant parce que mënoo ko évaluer. mais ñun par rapport ak suñu proposition de programme. Mm-hmm. la ñuy nit ñi ñëw fi te on a dit que on a on a y a un projet boo xam ne dañu bëgg Sénégal. organisation yi nga xam ne wala association yi nga xam ne ils ont des projets euh, des projets culturels ñu soumettre ko on a par exemple. au doyen kon am ay activités culturelles. am na am na appel au projet par exemple j'ai parlé au doyen Pape Faye. pour vous dire sur le plateau moom il est d'accord déjà de nous faire. nekk c'est une ak lébu yi lébu parce que je je jaraaf jaraaf ndoy je lui je vais lui donner une carte. bien waaw parce que dama ah. bëggoon jëfandikoo benn cérémonie ñu dëpp ak yooyu. voilà l'esthétique africaine. et puis et ngi nii tamit euh, si weeru màggal bi ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba. exactement mais yu mel noonu tamit dañ leen war a sargal. ñoom ñëpp dañ leen sargal bu soobee yàlla. parce que man ku man en fait man mon travail. c'est sur ça je travaille sur les curriculums identitaires. loolu ci la yàgg dox. mais lii daf ma fekk si dama ne alhamdulilah léegi dañu mun a def li nga xam ne léegi c'est au niveau africain. aywa docteur léegi. lan nga bëgg mu leer nañ si bopp nit ñi si Black History Month bi ñu nara a fii ci réew mi. mooy 2020 lii suñu histoire la parce que suñuy mbokk la. jóge nañu fàttali rek ne que la nar a nekk. février 2020. Mhm. c'est du premier. au 30 généralement dañu doon jël benn bés. non février du am 30 de. non non février au 29. autant pour moi donc jusqu'au 29. bon les frais dañuy dañuy def appel à compte dañuy dañuy dañuy def aussi dañuy déposer façon parce qu'on mm. nous a demandé tout simplement de faire nos projets et de déposer. américains yi dañ financé. dañuy dem ambassade aussi parce que se seen yëf la. ok waaw déjà j'ai déposé dossier pour l'ambassade. mais aussi nous avons nous en train de contacter des euh, n'est-ce pas des sociétés. ku mën a jàppale budget budget bi fii euh, ñaata ngeen ko. nous nous avons évolué à 5 millions. parce que xale yi ñun ñoo leen a jël en charge. en tant que non c'est-à-dire que pour l'instant ñun pour activités yi ñu dugaloon. waaw ah, les activités waaw non non non mais budget man li may laaj mooy. budget global bi on l'a pas encore évalué. Mhm. n'est-ce pas définitivement dans la mesure où. il y aura par exemple des comptes des réponses pour appel à projet. docteur loolu da ngeen budget budget du lenn lu dul. Euh, voilà prévision. non c'est prévisionnel fu mu ne nii. waaw on l'avait établi bon je vous dis franchement on l'avait établi à 5 millions mais je pense qu'on peut aller au-delà. non non non 5 millions moom du budget. black history man. waaw 5 millions doyul sa xami. voilà waaw doyul non doyul si dara sax. doyul si dara doyul journée bu fekkee junniy xale. waaw euh, rek. Hmm. yu nar a ñëw. paase yeeg paase journée toog fa lekk fa def prestation ñibbi. non loolu ëpp rek loolu dina ko ëpp de. dinañ ko yokk xale yi rek dinañ ko yokk moom. waaw dinañ ko yokk parce que au début on avait on avait fait une seule pour la semaine la seule journée. du 7. Uh-huh. dañu uh-huh. évaluer woon loolu. ak peut-être avec l'ouverture oui mais bu naree nekk tout un mois. donc bon euh, monsieur Total il peut pas le savoir d'autant plus que xamul nombre bi. waaw oui mais justement mais mais mais mais Fatou affaire budget affaire estimation la. mais on le fera ensemble. Ah, ah, parce que moom waxu leen. <laughs> waaw docteur Diallo xanaa waaw. Tounkara li mu wax nii rek ñu ja nga jàppale ko ci. moom daf ci bokk moom mooy suñu. ah non non loolu il faut ñu il faut ñu c'est-à-dire que ñun tey. Uh-huh. Black History Month. suñu bo ñoo mënuñu si woo ñuy tànqamlu. jamais mënul nekk. jamais tu vois surtout que nag yéen soxna yi awa yéen da ngeen da ngeen da ngeen si war a jàpp parce que jigéen ñi tey ñu mel ñoo ay antama jigéen njaay ñooñu nga xam ni vraiment <laughs> waar wi ñu bay si wàllum jigéen ak nit ku ñuul euh, taxaw ñoom Aline Sitoé Diatta Yacine Boubou ah, ñoom ñooñu ñëpp tey mais mais ñooñu il faut yéen jigéen ñi ngeen ñëw valoriser ñooñu. waaw xam nga man man xam nga ne boo ma woowee ci valoriser jigéen. danga may woo man bi ma demee macha allah waaw bi ma demee dama leen yóbbul lu ma am. waaw dama leen jàngal. Mhm. les femmes de Nder. mais dañu bëggoon dañ fi nekkoon di say. les femmes les femmes de Nder ils savaient ça ils savaient qu'on leur donne les femmes de Nder les femmes là se sont brûlées pour ne pas tomber waaw pour ne waaw pour ne pas tomber n'est-ce pas sous l'esclavage dans la promiscuité aywa euh, docteur Diallo euh, waxtu bi jàpp nañu tey euh, lan ngay jeexale lu may jeexale tey moom maa ngi woon ñëpp mm-hmm. ñi nga ñëpp ñi nga xam ne yàgg na ñëw liggéey ci Plaque Suisse ak ñëpp ñi nga xam dugg ñu ci parce que bi yoon soxla nañu la société civile soxla nañu donc les associations et les organisations culturelles

372 70 68. aywa euh, loolu dafa am solo parce que euh, liggéey bi maanaam tey pour euh, nit ñu ñuul ñi gis nañ niñ leen ni ñu leen di soofantalee ñu leen di tuutilee tuutalee. gis nañ tey vraiment daal yoo xam ne neexul suñu xool daal ñu gis ay ay gaal. fees dell ak ay nit yu mm. ñuul ñuy dee parce que ba ñu bëgg dem ay Europe ay Amérique bu ñu demee ñu ñuy buntu xatal ak yooyu euh, pour yooyu ñu faj ko ñu saafara ko def si bokk ñu dellu siwaat euh, xam dëgg-dëgg ñun ñooy ñan lan la ñu am mm. lan mooy suñu démb ñu lan mooy fan lañ bokk ñun lan la ñu euh, ban waar lañu ñu war a bay ngir ñeneen ñi gën ñoo wekk parce que man loolu sama sama expérience bopp la daal dafa bokk si li tax surtout tubaab yi ah lu tax ñu lay ñu lay wekk nga wekk sa bopp dafa bokk si tax tubaab bi moom fonk la. Ah, waaw mais euh, boo ñëwee yi jéem a nuru moom xam nga euh, la vie il faut se prendre la man aussi mun naa ci yokk ni ñun hmm. dañu war a dak reconnaître a reconnaître hmm. nous on a une personnalité et ko war a nangu bon man boobu nangu moo ko non duñ ko nangu xam nga lu tax suñu kanam damay hmm. ma expliquer c'est parce ñun luñ ñu teg dañu ko teg lu ñu jàngal suñu bopp nous sama ce qu'on appelle mémoire servile ñoom ñoo ñu ko jox lu ñu bind ci ñoom lañ ko ñun lañu ñu jëlaat ñu di ko bindaat ci ñun. non non c'est que ñoom ñoom ñun tey dafa am histoire dafa indi colonisation. colonisation daf cee bokk nit ki nga dépersonnaliser ko. ñu noonu. ah léegi ñun dañuy dund fu mu toll nii après colonisation mais loolu mosul nekk ñun. mais en perpétuant ce qu'ils nous ont laissé. non mais loolu c'est normal mais du ñëpp ko nangu. waaw mais ah, non soo gisee ma ne. aw ah, yow nangu woo ko d'accord man ah, nanguma ko. man nangu ko mais dans la majorité c'est un système il est il est bi ngay wax noonu. waaw mm. euh, c'est plus euh, fan nga koy gën a gisee euh, chaque jour ñu wax ko dans les pays francophones. oui. ñun francophone xamuñu xamuñu fu ñu teg suñu tànk. xamuñu ko xamuñu fu ñuy teg suñu tànk xamuñu fu ñu jëm en fait xamuñu fu ñu jóge xamuñu fu ñu jëm. on tourne en rond les anglophones ñoo ñu gën a xam fi ñuy teg seen parce que ñoom anglais dafay ñëw coloniser la mais dalay bàyyeek sa dara dalay bàyyeeg au moins ta culture mais fii ñun dañu bëgg ñëw nañu fourchette ak paaka mooy lekk mm-hmm. yéen li ngeen li ñu leen wax ne loolu la tubaab décidé dana loolu moo baax ñun français yi pour ñun boo ko dundul dundoo dund dund dund dund nit. Mm-hmm. donc du ko Euh, on est on s'est pas encore départi du joug colonial ba léegi moom la ñuy dund ah franc CFA mais loolu ñun africains yi yenn ko ko bàyyi mi ngi noonu c'est que. koy waxaat il faut qu'on accepte cela. il faut qu'on accepte que président. <laughs> nous ñun nous avons accepté nous avons accepté. non c'est-à-dire que ñun ñun tey. ñu bugg ko ñu ba xam nga Cheikh Anta. Cheikh Anta loolu la liggéey. wan ñu ne que ñun euh, mémoire servile bi ngay wax nii. ñun loolu du woon ñun. ñun au contraire ñun ñoo nekkoon ca kanam. parce que tey soo demee xool pyramide yii nga xam ni ñi defar loolu. dañu avancé woon bu baax. te loolu ay nit ñu ñuul lañu woon c'est étable factualisé et tout. Mm-hmm. donc ñun tey histoire bi dal suñu kaw nii ñun ñun ñoo war a fexe ba défi boobu ñu relever ko mais si relever ko nag lii def cee bokk. ñu dellu siwaat si ñun lan lañ am ñun ñooy ñan. ba pare ñun li ñu moom ñu sargal ñu tal suñu bopp xam nga sama sama mag Assane Sagne dafay wax lu am solo faatu mu ne euh, nit ki moom balaa muy gëm boppam dafay njëkk a tal boppam. dégg maanaam yow li nga am nga tal ko yow yow maanaam jublu si gëstu ko euh, commencé nag di ko di di ko yéekati keneen ki su ñëwee nga nga nga toog tey par exemple su ñu toogoon ay ay ay tubaab ñun ak ay tubaab benn anglais benn américain benn kii. kenn ku nekk teg li mu am français bi teg culture française am allemand bi teg culture germanique am suédois bi teg culture suédoise am mais man su ma ñëwee man ma indi culture française man teg mais man léegi lan laay tekki. yoruñu dara dara man pour ñoom. ah pour ñoom ñu mën maa wekk damay ñëw indi culture sénégalaise. solu comme sénégalais. wax comme sénégalais indi samay valeur sénégalaise. waaw boobaa nag boobu boobaa. waaw kañ xam nga li nga wax dafa am solo gis bu boobaa. ña ko jiite ñoo ko ña ko war a wane. gis nga le Faso d'en Fadi euh, euh, Burkina dañu xëy benn bés ñoom seen président ak seen ay ministre ñoom ñëpp tissu bi la ñuy sol. Hmm. c'est un tissu hmm. duñ ko wàcc moom lañu am droit sol. nga dem xool nigérian yi ñoom ñoo dem ba tey sax yenn façon solu yi ñenn ñi ñeme ko. Hmm. mais ñun sénégalais. léegi la am fit boobu cest di dire tey war nañu dem ba nga xamante ni ñun ñi ñu jiite ak ñeneen ñoo xamante ni bés bu ñuy dem ci yenn dëkk yi dañu war a wane. suñu Ndour ci sa cravate bi la bëgg a wax ah daam kay cravate na ko ba neex. a <laughs> naka <laughs> sa sa bi <laughs> parce que xoolal. gis nga gis nga naatu naatu faatu ñang bi. moom amoo loo si wax fii la bokk waaye mais fii la bokk. fii la bokk non mais mais dafa am benn expérience bu ma dund si ah, loolu. bi ma nekkee Amérique di jàng. benn bés sama goro dafa ñëw indil ma benn demi saison ma sol ko dem classe jàngi. prof bi di ma xool benn tubaab xool ma xool ma ba cours bi jeex mu woo ma mu ne ma yow li nga sol ni lan la ma ne ko waaw lii sunu yére la ñun fële sunu réew mu ne ma laaj. non seulement dafa rafet mais dafa mel nii dafa confortable mu ne ma ñun waa ñun waa amerique ñun tubaab yi ñun waa Occident suñu yëre confortable ñu mais xalaatal kii cravaatam bi tey sonn lay def xam nga léegi man awa gis nga faatu xoolal su prof boobu xool docteur something fàtte naa prof bi xoolal gis nga prof bi man depuis bi mu waxee loolu. man si laay mu ne ma. gis nga mu ne ma sa yére bii. mu ne ma tey su yow soo fexe woon ba nga am kenn ku siiw ku ko sol fii. mu ne ma nga doon millionnaire. waaw donc ñun am nañ loo xam ne ñoom dañ koy xool gis ni que lii am na solo am na valeur mais ñun ñoo ko valoriser wu. donc. mais c'est un euh, niveau système aussi il c'est vers le haut parce que l'éducation c'est la base c'est fondamental. mais mais mais c'est partout xam nga le haut. le haut dafa am solo mais mën na nekk bottom up. mën na nekk up down. waaw mais yooyu yëpp mën na nekk. moo tax ñun ñu commencé par bottom up parce que bu ñu demee ci xale yi peut-être que au bout du compte nañu fekk si ti cette conscientisation là wu ñu xam ne dañu war a changer le système éducatif. mais mais tey gis nañ par exemple ku mel ni Akon dañ ko si delloo delloo njukkal. vraiment moom day wane ne que. vraiment teg sa mbaxane bu la def sa ay padam def sa naat bu baax. def sa naat bu baax. vraiment aywa delloo njukkal docteur Mamadou Diallo Black History Month boobu vraiment. Euh, ñëpp la concerné képp kuy nit ku ñuul rek dañu nar a sargal nit ñu ñuul ñi diggante euh, premier ba 29 février bii di ñëw bu soobee yàlla kenn ku nekk yow war nga see euh, bay sa waar nit ñu ñuul ñooñu gis nañ ñoom jommal yàgg nañ jommal tubaab yi nag nit ñu ñuul ñi ñun ñoo foog ne tey ñun ñoo foog ne tey vraiment dañoo suufe mais ñun si kaw la ñu war a nekk ca kanam euh, sunu ay euh, invité ñoom ñëpp tey euh, amuñu seen fay ñu leen di ñaanal suñu borom mu may leen jàmm ak xéwal dimbal ak yërmande aw jaak loo jeexale waaw xanaa di gërëm di sant téléspectateurs yi ñi nga xamante ni ñoo toog ba di ñu seetaan comme nag ñooñu tamit dañoo ñeme guddee di remercier ñi ñëw ci plateau bi yëpp tey delloowaat la lengay nànk Tunkara di remercier dooma yemale di remercier nag man tamit ndax Baara first class sa ñawkat la yow pour ñu wax waxaat ko léegi mu leer du suñu ñawkat ñun <laughs> léegi man maa ngi remercier Bijou Dieng Diakhaté ci technique bi ma defal tey euh, léegi euh, Fatou je te passe la parole bon je la prends <laughs> def ni Mbaye <laughs> que ma wax merci beaucoup merci prof merci à vous chers invités donc ça a été magnifique ah tey dañ fi wax lu utile Euh, donc yow sa sujet bi important na enseignement bi gis mu lu ko gën a important également auparavant on a parlé de Touba màggal sapeur bi ça de pair donc voilà màggal ci jàmm rek ak sama tailleur Sophie Cheikh ma ne ma bii ngay yóbbu ci màggal macha allah macha <laughs> euh, euh, seen fay ñun ngeen di gis di ñu dégg mais ñoom liggéey bi ñuy def suñ ko deful woon doo leen ñu mën a gis doo leen ñu mën a dégg baara first class delloo ko njukkal sunu ay euh, euh, sunu ay euh, téléspectateur nag ñoom amuñu seen fay fu ñu mënti nekk ci àdduna bi ànd ak ñun ñi nga xam ni ñi ngi màggali ñu ngi leen di ñaanal suñu borom mu yóbbu leen ci jàmm indiwaat leen ci jàmm waaye ñi ngi fàttali nit ñi rek ne na nañu ànd ak dal ànd ak teey ñiy dawal ñu nekk ci tali bi ndax at mu ne day am ñoo xam ne dañuy faatu si yoonu màggal bi te léeg-léeg lenn du ko waral lu dul yàkkamti ak xëbër xëbër ak Euh, dégg nga ñàkk daal tegginoo tegginu tali léeg-léeg yooyu dafay indi ay nit sax di ñàkk seen bakkan te loolu euh, lu lu ñu war lu ñu mën a moytu la am na ñu bëri ñoo xam ne ñi ngi faatu si ay accident te loolu mënoon nañ ko moytu su fekkoon ñiy dawal gën nañ euh, ànd ak dal ak sàmmoonteeg li nga xam ni moom mooy sartum tali ak sartum oto ñaanal sunu mboolee mi ñi àndal ñun ñëpp jàmm ak xéewal ndimbal ak yërmande te dig leen ndaje àjjuma bu soobee yàlla wasalaam